ciyee jaajëf ciyee sama gars yi fi nekk ak fi jaajëf sama gars yi jaajëf Mister la ñëwati maa ngi ni Brooklyn di yoon voilà merci di like merci merci gars yi ñëw leen ñëw leen gaaw ma dafa leen di ci Farba Ngom Farba dafa dina jëloon rek Farba Ngom Farba Ngom defati na ca lool rek xaar leen ma war leen vidéo Farba Ngom xam ne Kayz Fof moo ñu ko wan Kayz Fof moo ñu wan benn vidéo ci li ñu wax ñu ne la weddi gis bokk ci kii dañ ne jabaru Farba la جاي او السيسي كل الحاجزي كل المليون كل البيت يقدر يطلب الضم كل ديزل دي سنتين دي مليون دي مو دي دي جدا اي بوات لنك لنك جبر وفر بنغم مو يرى خالص دي خالص دي دي بو دي خب خالص ولا لا اسك دغلا باسكو كايس فوف كايس فوف موم لاي فيديو موم لاي ني sama waa ji général bi mais gars yi lii dafa doy waar Farba Ngom xaalis bi fan la ko jëlee jabaru Farba Ngom fan la jëlee xaalis bi lii def ci war na mat cinquante cent millions

Farba Ngom la bëgg xam fan la jëlee xaalis bi Sénégal nekk ci ndóol ah Fatoumata Sy Tampi fan yii rek la ko woo xanaa bu gisee lii dina dox Fatoumata Sy Tampi bu gisee xaalis bi yëpp dina dox <laughs> waaw lii lii lan la est-ce que kii dëgg la ki ñu wane noonu waaw kooku est que moom mooy jabar Farba Ngom mais gars yi xool lii xool leen lii lii au nom de xaalis bi boo ko gisee da naan li nee na si si kal yi di si dara est ce que jabaru Farba Ngom la parce que tamit bëgguma ñëw accuser nit loo xam ne du moom xam ne en tout cas ay xalkulaar seen or yu baax sol teg ko di ñaawal ngeen nekk ci ay mais man mënuma bëgguma bàkkaar bëgguma tooñ waaye dama ne bu dee Farba la bu dee farba la farba war na génn ñu expliqué jabar fan la war a mën a xaalis bi xalaa doole ma ne xaalis mbootaay la gars yi laaj leen partage dooleen ma wax la dooleen ma wax ne fan la war a mën a jëlee xaalis bi xaalisu politique la xaalisu lan la vraiment war na ko expliqué ñi dégg xal pulaar bu fekkee ne seetaan ngeen vidéo bi ngeen traduire yi ngeen wax ni la ñu wax tunuska lii dafa doy waar trop man lii il faut ma indiwaat bi parce daf maa jaaxal man mosuma gis lu mel nii mosuma gis xaalis bu bëree nii <coughs> kan moo mën a confirmer kan moo mën a confirmer ne lii kii jabaru Farba Ngom la gars yi laaj leen partagé la live day doog a commencé mais il faut que ma commencé Farba Ngom xool leen ko wax kii kooku est ce que jabaru kan moo ko mën a confirmer qui peut confirmer des dégg de seetaan 75 sous le traduire lui lui xaalis lan parce que nous nous donnons ci doon lan moo tax ñoom ñu yàq Sénégal yi di def seen lii di ko filmer Sénégal yi nga xam 500 francs sax amuñu ko Ousmane Sonko buy laaj Sénégal yi 500 la leen di laaj ñoom ñu teg ay centaine de millions gars yi gis ngeen paquet bi paquet bi boo ci gis rek bu ndaw bi rek 1 million 1 million bu ndaw paquet 1 million 1 million waxatuma laa ko ñu ñu dajale dajale di ko jënd ay ay paquet mel ne ay paquet ci sa xaaman xamu paquet bi fan la ko jënd ci neen frère loolu bul la di dara au Sénégal non xam nga temps yi dañ si wane woon benn vidéo ñu ne Farba Ngom la te kooku defe naa du Farba Ngom parce que dañ ne Niger Nigérian la xam nga moo tax bugguma bàkkaar mais nag tey soof en général tey soof tey soof du génne tey soof en général du génne lu mu lu lu ko wóorul parce que kayis dafa bind mu ne la femme de Farba Ngom waaw loolu la kayis bind la femme de Farba Ngom sama waa ji bi en général information yu baax la ñuy jox toujours mais lii dafa metti xol yéen ñi nekk Sénégal mënu leen sax am téeméer ñu jël xaalis bi jal ko di leen saaga di leen ñaawat ak Farba Ngom Farba Ngom nag war naa attention parce que yow sa doom sàccoon na fi deux cent cinquante millions jënd ci oto jël vingt millions may ko xaritam jënd ci oto loué ci apartement Almadi benn policier bu ñuy wax euh, El Capo la xaw ma moo mujj nangu oto bi Farba Ngom deux cent cinquante millions nan nga ko mën a dencee ci sa kër doom nee na chaque samedi da jël xaalis bu bëri ay saaku xaalis nga yóbbu ko ci Daha Diop Daha Diop mooy sa la xaw ma loo leen bokk sa rak sa doomu mag moo ko wax comme sa doomu rak dafa jóg doomam moo ne Farba chaque samedi di leen di indi xaalis ci kër gi doom bi sàcc ci ñaari saaku vingt cinq millions xool ma naan ñaari saaku vingt cinq kilos bañ ko compté mu nekk deux cent cinquante millions Farba Ngom waxal nañ la loolu parewuñu foofu Farba Ngom ñu ne dafa am vingt sept gàlle xalaat ci bi def na ci émission of nag yow yaa déclaré ne am nga ñaar fukki kër ak juróom ñaar Sénégal kan moo war a am ñaar kër ñu nga am juróomi kër Allemagne am ñaari immeuble defe naa point e la ñu wax amaat yeneen ñaari immeuble xaw ma Mermoz xaw ma Sacré-Cœur nga am euh, structure góor bi nga am ko juróom benn kër Mamel nga am ko ay kër ak surtout kër Damel Farba Ngom ñu ne am nga sali kër Farba fan la jëree xaalis bii ba ñu ne kër yëpp boo ko xaymaa mat na vingt cinq <coughs> yi ngeen baal ma ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar boo xaymaa kër forma loolu la wax kon tey bu ñu yeewoo gis ñu jël xaalis bu toll nii ay lii wax nekk war na mat cent millions bu ko romb dajale ko nii dañu bëgg a xam Macky Sall lan moo tax mu yàq senegal yéen nag waa Sénégal war ngeen yeewu waa Sénégal war ngeen yeewu Fatou Stamp yow mi di woo Farba Farba du la wuyu yow war ngaa yow nga xam ne waa Fuuta faale wuñu leen seen bopp lañ ci nekk waaw Farba sama waa jàngo ñu euh, vraiment lii gars yi dafa ci lii après ñu continuer suñu live mais war ñu ko bàyyi mu set mu wax ñu xaalis bi xaalis lan ku dégg tukkuleur am la koy ñaan ku dégg xalpulaar demal ci vidéo kay soof bi nga déglu après nga ñëw fii nga commenté nga expliqué ñu lan la ñu doon wax bu dee mbootaay la bu dee lu mu mënti doon bu dee xaalis politique bi mais ak lu mu mënti doon xaalis bi du yoon nit yor xaalis bi du yoon du yoon nit yor xaalis bi Farba Ngom géewul Macky Sall la VIP géewul VIP warul mu a am ay kër ay kër ba pare nag di set suñuy élection li moo tax Farba Ngom jël euh, Djibril Ngom mu mu mu mu jënd ko parce que xam na ni Sonko bu jëlee nguur am na nu muy demee ci kaso ba la jëm comme ni Aliou Sall ni ko Sonko waxee ci kaso ba la jëm moo tax Farba di jël xaalis di jël di ko jox Djibril Ngom di ko yóbbu pale lii mel ni bu ko gisee dañ naan ko Farba yow xëy na lii moo tax ngay def li ngay def parce que xam nga ne. yow bu Macky Sall daanoo farba da ngay daan mais lii dafa ñaaw ñaaw na dëgg man mënu ma mënu ma naa conclure naa conclure xëy na kon farba dafa mel ne moom mooy vice président Sénégal Cheikh Cheikh Bara Ndiaye nee né? na est ce que farba liggéeyul Macky Sall waaye lii xamal la lii si wane nguur bi waa ji jeex é. fin de régime fin de régime si la moo yëpp di génn waaye farba li yëfu baadoo la bu dee ci sa jabar la ak ñu mën doon li yëfu baadoo la ndax nga nekk ci dëkk boo xam ne nit ñi lekk ñu naanu ngay ngay ñaawal ñu di jël ay millions di ko teg ay centaine yi am na benn jigéenu Sénégal bu nekk France mu xaru dugg ci ndox xaru ñu nekk fii ci dëkk yi sax di liggéey sax amuñu lii jël nii tey ko passat pasare yemu len ci passat pasare ak sàcc mais yu melni ni boo def sax nga bañu filmer waye du ko filmer du ko dugal ci internet bi di ñaawal nit comme Macky Sall lu mu def filmer Djibril Ngom ah comme Macky Sall lu mu def rek ah filmer Djibril Ngom ba pare ba pare ci pale ba di bokay def mën nga ko bañ a filmé mais ñoom ñoo koy tey di wax ne ma tay filmer di wane di saaga Sénégal yéen nag jeunes yi war ngeen ñëw waa Fouta war ngeen ñëw bu ñu duggee dinañ jox ay 1000 francs ay 1500 ay 2000 francs 2500 xool leen bu dee kii jabaru Farba Ngom xool leen li ñu yor ëpp na 100 millions boobu voilà gars yi loolu laa mënoon wax ci vidéo bi pour wax leen ne lii yëpp fin de régime élection yi nag ku ci wooteel waa Fouta boo leen ñàkk dafay def ngeen wooteel ñoom Farba Ngom seen affaire la mais en tout cas lii bu dee Farba la ko bàyyi mu sedd loolu tax man ma commencé sama laaj bi loolu tax ma commencé sama laaj bi dafa lii dafa doy waar dañuy xaalis boo xamante sax fu koy def ci ay paquet lañ koy def di daaj xaalis bu bees tax banque la jub mais c'est extraordinaire dëkk boo xam ne dañ ne dëkk bi dafa nuur ah moo tax nag ñoom du ñu dem dañuy dee ci nguur parce que seen bataxal bataar seen yaakaar yu ne kenn du la ko yàqal Farba Ngom nguur gi bakkanam la ci teg moo tax ñu sàcc maat yëpp jënd Jibril Ngom Macky Sall nguur gi bakkanam la ci teg gis nga Aliou Sall nguur gi bakkanam la ci teg moo tax mu génn di tëkk Sonko ñoom Sonko nag li mu def démb rafet la génn nañu ñu tëkk Macky Sall bakkanam jeex na ko boo sàccee élection yi duñ la bàyyi ñu bàyyi mu set voilà gars yi nañu conclure ak Farba Ngom laaj bi tamit sama euh, euh, euh, bëgg naa wax ci Mamour Diallo ak benn waay tudd Malick Sow dafa génn bu attaqué ko am sama benn abonné sànq loolu bind mu ne ma naa ci wax am na lu ma ci xam tuuti loolu dinaa ci wax mais sax ma ko une fois rendre compte bon xam la ma sottama ah si moom dafa sedd trop wax na ma sax gars yi meele ma ma sol sama gant meele ma ma sol sama gant sëñ bi ma dem lënd fenn fii moom dafa mënoon wax ci euh, Farba Ngom nañu continuer live bi wax ci euh, Barthélémy Dias Ousmane Sonko démb def nañu yëfu guerrier waaw Barthélémy Sonko def nañu yëfu guerrier démb temps yëpp maa ngi leen doon wax man maa Mister Shake nag maa leen doon wax ne Macky Sall day waaj sàcc élection yi gars naan ma non Mister Shake bàyyi li ngay wax bàyyi wax waxu sàcc élection man maa Mister Shake waaw Barthélemy Dias kii nee na c'est pas des faux billets kan ma fa nekk la <laughs> du faux yi may yéen boo leen gisee faux billets di ngeen ko xam ne boobu xaalis xaalis bu weex xaalis bu CFA yu wóor la du faux billet ku yor 27 gàlle par nga 27 kaa mën a am lii voilà voilà les gars xaaral ma du moom xaaral ma jubbi tali bon léegi dafa am benn waaj bu tudd Malick Sow dafa génn mu dal ci ma ci Mamour Diallo mu ne Mamour Diallo moo ko tey taal kër euh, yaayam kër maamam le huit euh, mars bale pass waa jooju tamit kan la waxaat waa jooju dafa ne euh, waaye ma ma jé tali bi moom neexul waa jooju ni dafa ne Adji Sarr complot Adji Sarr moom Mamour Diallo daf ko woowoon wax ko pour ñu attaqué Sonko xam nga waa jooju Malick Sow la la tudd mi ngi dëkk Louga nee na Mamour Diallo daf ko woo daf ko woo daal di ko wax attaqué Sonko bu fekkee ne Mamour jàlloo li muy wax du dëgg na Mamour Diallo ah, porte ko mais li ñu jaaxal nit boo amee fit génn di wax da nga war a génn say preuve est ngi may dégg maa ngi dégg sax Karim Xrum Xax mu ngi dal waajooju mu ne waajooju waaw nu mu waxee daal kenn waru ko dégg parce que moom waa joo xam ne yow da ne ci Mamour Diallo nga nekkoon amoon nga complot ah bu dee li nga wax dëgg la yow nga xam complot takk ci takk ci rip dem ci biir bàyyi ba ay nit dee yow nga gënd parce que amuloo li nga bëgg ci Mamour Diallo léegi nga génn di léegi ñun ñu ngi war a comprendre mooy est-ce que kii dañ ko war a gëm wala waroon ñu ko gëm gis naa tamit Fatoumata Danso Fatoumata Danso gis naa si mu def ci vidéo Fatoumata Danso Fatoumata Danso gis naa mu def vidéo mu mu wax la même chose li Karim Xrum Xax wax bon nee na waa ji dafa daan ay temps dafa daan tagg Mamour Diallo Fatoumata Danso lool la wax nee ya amna ay vidéo yu bari yo xamné ne waa daan génn di pegg Mamour Diallo léegi man limay wax rek li lii naruma ci won wax parce que man gis na nit kuy wax man buma gisé nit kuy ñëw di accuser ku génnewuloo ay preuve man dama naan damay tok rek di la xol man xama la laa la laa gëm audio vidéo whatsapp yow né nga da nga Mamou Diallo dafa da nga wax ak mom mu naan la defal lii ci Sonko defal lii ci Sonko sama benn abonné moom bind mu ne ma sa xarit sa xarit Mamour Diallo gars yi baal na sama benn abonné moom moo bind tey sànq laa ko lire sànq laa lire message bi gars yi da ngeen war a bàyyi xam nga lan ngeen war a bàyyi da ngeen war a bàyyi loo leen gis ci Mamour Diallo rek rek ngeen ne monsieur Cheikh sa xarit déedéet bu leen wax loolu c'est pas man su may def vidéo ci Mamour Diallo defuma vidéo parce que sama xarit la wala sama lii la wala sama laa non man information boo xam ne dafa pertinente dafa pertinente rek dama ciy wax est-ce que yaa may saa nga baal dafa am constitution xaar ma génn

ah sa waa ji ji nañ ko lii wala wax nañ ko lii kon lii dëgg la déedéet nit ki buñ ko jiiñee da ngeen toog ngeen déglu man Mamour Diallo su ma gisee ay preuve yoo xam ne dafa def lu mu warul def xam nga en ah, comme sama xarit la damay jël sama téléphone su ma ko mënee digal ma digal ko ma ne ko ah Mamour waroo defee nii war a war a def naa dama ko xam. am na yoo xam ne buñ ko waxee ci moom daf may daf may bett gars yi nit koo nekk nit ku nekk boo koy seedal da koy seedal li nga xam yàlla rek a xam ku def ak ku def mais man xaar la ma dugg fële parce que fii moom yaa trop de xam nga lu euh, euh, ngeen war ma interpeller lu tax ngeen war ma interpeller ci Mamour Diallo ah non damay dem dugg fële ci ci kii bi euh, mool bi tey ndar moon def laay tey ndar moon def laay parce que parce que da euh, doon neex mais comme euh, damaa génn jot naa génn ba dama gis information yi loolu tax ma ne damay def laay mais démb dama ne loolu sax du ma def laay mais vraiment li koo def démb ak Barthélémy Dias foog ma def live sérieux parce que Barthélemy dafa menacé Macky Sall waaw man waxoon naa leen je vous avais dit que Bart bu xeexul billaahi Macky Sall day sàcc élection damay ñëwaat ma Mamadou Diallo waxoon naa leen ba ma leen ko waxee ba ma leen ne Bart Macky Sall day sàcc élection yi lu bëri na lu doon monsieur Cheikh Baye li ngay wax monsieur li ngay wax parce que ñu bëri naan ma monsieur Cheikh Baye li ngay wax parce lii day tax ñu bëri duñu dem voté ma ne la noonu loolu tax nit ñi bañ a voté nit ñi dem leen ngeen voté dem leen ngeen voté mais Barthélémy bu xeexul comme ba comme kii Bamba Fall je vous xaar ma duggee nii parce que dafa war a dugg trop je vous avais dit thank you ah man yi supermarché yi kii laa nekk ci benn mois comme ça ma war a leen si ñu def tuuti tourisme benn mois la mois la c'est-à-dire benn centre commercial bi mag lépp fi am am na McDonald's Victoria Victoria

centre commercial bu mag la bu ñu jàngul ah, nga élèves yi ñu kañ lay développé kañ lay mel ni escalier yi gis nga escalier yi euh, ngay ñëw rek taxaw muy yéeg ngay sànni euh, benn restaurant la ñu gis benn restaurant benn waaw man fan laa war a dugg ah oui fan laa war a dugg ah xaaral ma jaay itamit. No, I'm not recording you. no, I'm just I'm just passing by. Take a kid and uh kii ne ma lu tax nga may filmé ma ne ko filmé wu ma la ak ka ñoo bëri histoire américaine yi xale bu ndaw mu ne ma excuse me c'est waaye recording mu ne ma lu tax nga may filmé ngeen baal connexion bi nag dafa dawa xam naa li ma dugg fii moo fii de am na ñu demee connexion bi du baax Mamour Diallo benn kii bu nag bu tudd Mamour comme ñoom bëgg ñu ko filmé Mamour Diallo yàlla moo def man maay njaago Sonko yàlla mooy def Mamour Diallo nekk sama xarit est-ce que yaa ngi may dégg def man maay njaago Sonko yàlla dafa def Mamour Diallo nekk sama xarit est-ce que est-ce que gis ngeen position bi ma nekk position bu xaw a délicate bu xaw a difficile parce que nan ngay amee xarit xarit

Men sonko la gem. Man man njago sonko. Eskize mwa. Diboskiz. Sade bi moun. Moun lor. Eskize, eske gisnen posisyon bi mwenek? Eske gisnen posisyon bi mwenek? Mamoud Yalou. Mamoud Yalou se moun nami. Men sonko la gem. Men lenni moun nan lanko wak. man je suis un youtubeur je suis un youtubeur j'ai travaillé avec Mamour Diallo mais je me suis dit, ci Je ma gis Mamour Diallo Macky Sall da koy use utiliser je lui ai dit Mamour bàyyil Macky Lola wax Mamour Diallo Macky Sall parce que Macky Sall daf la trahir c'est pas son coup la Son Sonko dàqalul la Macky Sall moo la dàq Sonko dafa def rôle am dafa gis dara ci 94 milliards mu rien xëy na am na lu ci coup Sonko plainte am détournement présumé son waxul ba léegi ne dañoo gis na 94 94 94 94 son Sonko waxul ne dañoo sàcc 94 milliards dafa ne détournement présumé jomaay ba mu demee ci Maïmouna Ndour fay loolu la wax détournement présumé mooy dañoo njort ne dañoo sàcc keroog tegal naa leen fi vidéo parce que dama yàgg wax gëm interview pap alenia ak interview bi la la Pape Sonko daf na ko yow yaa ngi wax ne dañu sacc 94 milliards mais 2 milliards ka a guen 2 milliards 300 mo jot guen Sonko ne ko même buñu saccé fukki dërëm sax sacc sacc la kon nañu nangu ne 94 milliards ken sàcc ko Pape Alé Niang war laaj nako mu ne ko gis nga ñu wax ci 94 milliards 94 fi nekk mu ne ko 2 milliards 300 te 2 milliards 300 moi je vous dis Tahirou sar jot nako encaissé te Tahirou sar Boy Seck dafa récupérer khalisam parce que dafa jël 2 milliards 500, mu jox ko famille lébu yi c'est-à-dire gars yi nit boy def dara da ngay def investigation man dama def investigation Tahirou Sarr lan moko ko ci affaire 94 milliards dafa jël 2 milliards 500 millions mu fay ko famille lébu mu ne leen yéen Abdou Diouf daf leen amee xaalis depuis 1978 dafa nangu seen suuf ñu tabax ci HLM Rufisque tabax ci tabax ci Kër Massar. 78 ñeent fukki at ngeen topp ci gouvernement pour mu fay leen seen xaalis fayu leen ñu bëri dee am na ci ay paa paa yu dee comprendre gisuñu dara perte seen suuf seen maam yi seen maam yi euh, seen maam yi dañoo dee perte seen xaalis Tahirou Sarr ci la ñëw 2016 mu ne leen yéen boobu ba léegi yéen a ngi topp seen euh, gouvernement bi gouvernement bi leen xaaral ma yëkkati xaalis jox leen ci la yëkkati deux milliards cinq cent fay leen est-ce que yéen a dégg Tahirou Sarr looloo ko ci dugal. c'est-à-dire yéen ñu bëri ñu bëri dañuy wax ci affaire 94 94 te ñu bëri xamuñu ci dara dara xamuñu ci man dafa am benn boy boo xam ne ci famille bi la bokk Menga la tudd Menga la sant Russie la nekk Russie moo ma woo mu ne ma bëgg xam ci 94 milliards laaj ma ndax man ci la bokk sama papa ay Tayrou sar. ay xarit lañu Tayrou sar. moo ñu fay xaalis sama papa am na ci 30 millions ci la tabax këram. mu ni ma suñu salon bi yëpp Tahirou Sarr moo ko ci def est na que yéen may dégg kon il faut que mu leer que quatre-vingt-quatorze milliards yi fi mu nekk nii Tahirou Sarr nag jot nañ ko ci jox deux milliards trois cent kon moom booy xool perte na ci deux cent millions sans yeneen xaalis yi mu yi mu doon joxe defar et cetera et cetera kon man li may wax dama ci xam dara Mamour Diallo c'est mon ami billaahi wallaahi taalaahi musu te moom xam na ni youtubeur laa temps yi may ànd ak moom temps yi may ànd ak Mamour Diallo dama ko doon défendre ci affaire 94 milliards yi génn naa ay vidéo di wax Mamour sàccul Sonko moom ci boppam nangu na ne 94 milliards génnul xam nga di ko défendre am naa Mister Shake man dama mën a xeex xeexu njaaga xeex mais man mën naa leen waatal billahi wallahi wataalaahi Mamour Diallo musuma wax Mister Shake attaquer ma Sonko c'est pas son style motax waji ji bu guenné malik Sow bi tay bu guenné di wax né Mamour Diallo moko wo di wax nekkoon attaquer Sonko ci ci ci Adji sar waxal Sonko li la waxal Sonko laa la moo siif Adji sar man lolou duma ko je ne ko pas.. parce que fit bi mu am bu la day vidéo bi parce que li ki dafa am ah. ku di accuser nit nit ki def ci affaire Adji complot ya bind lettre bi sa goro qui bind lettre bi sa ko taal def dafa am fit pour man waji waji nak Moustapha Diop lay c'est-à-dire def investigation il travaille pour Moustapha Diop kan moy Moustapha Diop Moustapha Diop mooy maire Louga te Mamour dafay koy waaj a Louga parce que Mamour Diallo Aminata Mbengue Ndiaye magu Gaston Mbengue Louga la dëkk moo nekk euh, fan la nekk moom moo yor lu mu yor conseil économique et social xaw ma Aminata Mbengue Ndiaye Mamour Diallo la àndal euh, euh, Moustapha Diop xam ne day waaj a perte Louga mu commencé di xas Mamour génn na semaine passée mu ne Mamour Diallo 94 milliards yi moom moo ko sàcc dëgg la xam nga te moom ministre la ci Macky Sall gars yi politique moo salte bëgg nekk maire bañ Mamour jàll toroxal ko yow nga nekk ci gouvernement Macky Sall nga génn di attaqué Mamour Diallo di wax ne Mamour jàll dafa sàcc 94 milliards loolu kay mooy Macky Sall dafa sàcc jaajëf Kira waaye Kira bàyyi nga ma de Kira bàyyi nga ma loolu mooy Mamour Diallo dafa sàcc Macky Sall sàcc yow nan ngay nekkee ci gouvernement Macky Sall Moustapha Diop nga nek ministre xawma ma infrastructure xaw lan entreprise Moustapha Diop en tant que ministre nga wax benen wa APR satch la kon yow di waxal ne Macky Sall satch la te yow mi di wax Moustapha Diop euh cour des comptes ñew na sa bureau nga dàq len di def enquête ci xaliss bo xam dañ ko dañ ko dañ ko waron financer ay jigen xawma lan entreprise xawma lan jigen en tout cas Nous ñëw di la saytu xaalis boobu Diop nga vous êtes des petits magistrats lu tax bëggoo nous ñu saytu la bu dee yow yow mii di sàcc Cour des comptes ñëw di xool ndax da ngaa sàcc xaalis wala xaalis nga ne leen kenn du ma du nga dàq leen Diop Moustapha Diop yaa leen dàq bu doon amuloo loo Diop du wax 30 millions est-ce que moom la est-ce que du mais ñu ngi koy waxal lu ne est-ce que yaa ngi may dégg Moustapha Diop yow du sa en tant que ministre ci Macky Sall nga ne Mamour Diallo dafa sàcc 94 milliards. ah da nga feebaroon j'espère que saba va loolu la waroon doon de que ça va est-ce que yéen a may dégg gars yi il ngeen def attention waa ji génn tudd Malick Sow di wax ne Mamour Diallo moo def lii moo def laa moom am na audio Moustapha Diop lay liggéeyal. si li ñu ma dégg bokk dégg naa waa ji waa ji dafay euh, euh, euh, day liggéeyal Moustapha Diop mais aussi des fois sax day ñëw ànd ak Pastef des fois moo ànd ak Pastef des fois mu ànd ak Moustapha Diop moo tax Karim Xurum Xaq xam man maa Karim jubóowuñu chaque mais tey moom li mu wax nii ci waa ji nee na il faut que ñu def très attention ci gars yoo xam ne fu tooy ñu takk il paraît que waa ji dañ ko jàpp waa ji il paraît que prison la nekkoon gars yi foog ngeen def attention waa ji dañ ne prison dañ ko tëj parce que dafa détourné xaalis xaw ma ndax dëgg la wala dëgg sàcc nag bu génnee di jiiñ sàcc da ngeen di def attention criminel amul warul mën a am crédibilité loolu la Karim doon jéem a expliqué nit ko xam da nga ci ben complot Nous ya genn tay di di wax nit ñi kon lu tax ñu lay gëm xaaral ma genn leen parce que Facebook bi la gis Facebook bi gis naa ñu bind ñu ne que euh, Nous musa daf leen nous. Euh, musa euh Facebook bi j'ai vu quelque part

et puis pour quelqu'un qui vient de sortir fraîchement de prison après avoir détourné 28 millions de l'ONG ENDA devrait éviter certaines sorties pour ne pas amplifier son, manque de crédibilité. Euh, nga Mamour mais yow mom, flagrant délit nga sàcc

Je rek nit wax ma wedd mais moom mii di wax dañ ne prison la nekkoon prison la nekkoon dañ ko jiñ xaar ma dem parce que fii dafa musique xam nga waaw léegi euh, moom dañ ko jiñ dafa sàcc 28 millions kooku tey moo génn di xas mais en plus de ça il travaille pour Moustapha Diop et puis kan la ñu gëm Aliou Sall génn na di défendre Mamour Diallo ci 94 milliards gis ngeen ne ba muy xass Sonko néna Sonko wax na ci 94 milliards kon Aliou Sall génn na di défendre Mamour Diallo lolo tax Moustapha Diop ci suba si xamna momit euh mu bëgg attaquer Mamour c'est-à-dire gars yi politique mo salte ci ci ay élection lañ nek est-ce que comprendre nga fi may waxee voilà lolo la mënon wax ci.

moom mii bu dee Malick Sow bii bi ñuy wax ne ci Maamu Diallo la bokkoon lu bon bon dafa war a xool ne ñoom ñaar ñoo doon liggéey kon tey bu demee ba jamono neexul waruloo génn di vilipender sa def defee lu bon bu defee lu bon gaa loo xam ne day day Sénégal lay yàq moom man maa njëkk a génn ma ne Maamu dinaa ko woo ne ah Maamu. bu dee affaire Adji Sarr def lii def na laa ah maam erreur la wala woon def lii wala woon def la xarit noonu lay def moo mais doo génn ci ci ci ci période politique xamuñ xamuñu ndax Moustapha Diop moo la jënd moo la wax loo nga génn di di di bili bànne sa xarit man bi thème bi neex xam nga lan mooy xarit gars xarit mooy ku baax booy xaritoo booy xaritoo da xaritoo ku baax man de man su may xaritoo damay xaritoo bu baax boo leen gisee man Mamour Diallo ma koy défendre ci yenn ci 94 milliards parce que man dama ko xam nee naa leen Mamour ñoo bokkoon.

ma nekk ak moom deux ans ba ba mu ko retrouver parce que maam man dama en Amérique def sama carrière moom mu nekk Sénégal def carrière ñun ñaan ñëpp on a réussi parce que moom dem na ba euh, DG euh, euh, euh, domaine man Machallah, allah am naa sama maîtrise am bourse ñëw fii citoyen américain Machallah. donc on s'était perdu de vue depuis depuis boobu mais ba ma au Sénégal. affaire Sonko bi moo tax ma xamaat Mamour Diallo moo tax ma gisaat koo bokk parce que benn jour laa taal leeral maa ngi rappelé wu nii maa ngi nekk sama jabar soxla maa ngi rappelé wu sama ordinateur laa taal dem leeral point net ne nii gis ñu bind Sonko nee na Mamour jàll dafa sàcc 94 milliards ci laa ne Mamadou Mamour Diallo ci laa ne kii sama waay la sama xarit la ñoo bokk ndox classe te puis on était on était amis.

ba ma gisee article boobu ma non ma ne non sama jabar non Mamadou non non non ça du sàcc sama xarit bii xamewuma ko loolu ñu ko jiñ 94 milliards ci laa defaat tout ba retrouver ko contacte ko Facebook retrouver ko ba ma ko retrouver si laa ko commencé xelal ne ko nag man je suis ci YouTube bi la nekk comprendre je vais te défendre tu es mon ami je vais te défendre dina dina investigation loo mu mën wax affaire mais moom buggul woon sax wax ci affaire bi parce que dafa né mon fonctionnaire la te il ne peut pas se prononcer mané ko nak Mamour nit ki buñ lay accuser da ngay génn nga défendre ci bopp boko ko deful di nga indi sa bopp problème il ne m'a pas il n'a pas voulu m'écouter sur ça parce que man nous ma comprendre rek nit ki dila accuser dila accuser quatre millions quatorze il faut que tu te défends mais c'est pas parce que tu es un fonctionnaire que tu ne peux pas sortir certains documents du bénéfice. me explique. Je ok, c'est bon. Mais je trouve que ça, c'est une erreur. Parce que 94 milliards, dañ koy wax a wax a wax ba léegi ñu bëri am na fi may wax ak yéen nii. billahi wallahi taala am na nit yoo xam ne nañ ne Mamour Diallo dafa sàcc 94 milliards. la preuve Moustapha Diop mi nga xam ministre la ci Macky Sall moom moo génn di ko dëggal xoolal ministre Macky Sall bu effectivement Mamour Diallo sàcc na 94 milliards te te Moustapha Diop nee Mamour 94 milliards yi sax tuuti mi ci 150 dossiers du sos lolo tax Mamour am problème mais pour man 94 milliards du problème xam nga problème bi fa la nekk Adji Sarr problème Adji Sarr bi problème mais 94 milliards man du problème parce que nit ki tamit bu ñu lay jiiñ yaa sàcc yaa sàcc te génnewuñu benn preuve comme affaire Adji Sarr dañu commencé génne ay preuve li li ma jaaxal lan moo tax ci affaire Adji Sarr ñuy génne ay preuve mais quatre affaire 94 milliards kenn bëggul génne preuve boo waxee ñu naan non non dañuy xaar ba ñu dem dañuy xaar ba dem procès lan la ñuy xaar procès boo leen amee ay preuve génne leen ko Adji Sarr bu ñu doon xaar procès kon Sonko mi ngi mi ngi mi ngi prison aj Adji Sarr ñu doon xaar procès kon heure bi soo Sonko mu ngi rëbës mais gars yi ba ñu commencé def seen yëf ci la Pape Alé dem fexe ba am ay PV est-ce que yéen may dégg ci la ñu fexe ba gis plainte bi ñu neen Goro Mamour Diallo moo ko bind mais loolu preuve la lu tax dencu leen ko lu tax dencu leen preuve preuve yi ñuy wax ne gab bi ñi naan moo bind lettre bi ñi naan moo bind plainte bi ñi naan bind ko jor jaa ñu ko bind bu la neexoon ngeen ne duñ ci wax dañuy bàyyi ba procès mais déedéet da ko koo génne parce que noo booy xeex boo yoree preuve da nga koy génne boo génnee preuve yi lan lañ lay def Macky Sall da lay jàpp nit sàcc suñu 94 milliards 94 milliards man de bu ma gisoon ku sàcc 94 milliards billahi wallahi taalaahi bu ma amee preuve maa koy génne lu ñuy def dañ may jàpp mais nañ ma jàpp mais mais mais Sénégal 94 milliards Sénégal jar na ñu jàpp la ci yow te kan moo la ciy jàpp Abdou Karim Gueye gi nii. taal drapeau góor jigéen xam na ne kenn du ko jàpp te pourtant li mu def góor jigéen ñi xam naa mu ngi def pression pression ci Macky Sall pour ñu jàpp ko mais kenn du ko jàpp parce que boo ko jàppee da ngay indi sa bopp problème 94 milliards yi tamit noonu la 94 milliards noonu la boo ko boo ko boo ko dénoncé nga am ay preuve génne ko yow kii ngay doon sax dañ lay tàcc. boo gisee nag preuve kenn génnewul dara c' est parce que mais dafa amul kenn sàccul 94 milliards te loolu Sonko wax na ko Pape Alé wax na ko génneel naa leen fii keroog keroog tegal naa leen fii interview bu fekkee ne am na ku fi nekkoon keroog ba may teg interview bi nga wax ko pour gars yi xam ne li may wax dëgg la 2 milliards 300 moo jot a génn Tahirou Sarr lañ ko jox Tahirou Sarr jot jot naa jël 2 milliards 500 jox ko famille Bale. kon moom booy xool moom moo perte xaalis fu mu nekk nii moom moo perte xaalis lenn nag mën ngeen ko wax ci 94 milliards mën ngeen ne xëy na Sonko bu noppiwuloon bu noppi woon Tahir Sarr dina fexe ba am 94 milliards parce que chaque année dañ koy jox dara wala mu jël li affaire yi yóbbu ko banque jaay jaay ko foofu jaay leen ko est-ce que yéen may dégg loolu boo leen ko waxee d'accord kon waa jii génn tudd Malick Sow génn di vilipender Macky

billaahi wallaahi wa taalaahi Mamour Diallo musuma wax Mister saagal ma Sonko ma déjà bu ma ko waxee du ma ko def parce ma ne fayda ba nit di ma wax saagal ma kii wala mais pour vous dire ban genre nit la billaahi wallaahi wa taalaahi ma wax musul yëkkati téléphone am ne ma waxal lii sooko Sonko wala waxal laa ci Sonko barki rasulilaay musul am man maa daan jël sama initiative bu defee dara ma ma couvrir ko invité na ma Louga am benn événement bu muy def su ma ñëwee filmer couvrir koñ bi sax man maa jël sama initiative le matin su may naan kafe ma dem ci maire bi naan kafe parce que dañuy waaj soo bëggee xam sa waay da dem da ngay egg ba këram xam nga waaw kii nee na mais Mamour Seck tu am Sonko Roqee Njaay yoo xanaa amoo dégg-dégg mu naan ma Mamour am Seck tu am Sonko man 2016 bu ma demee senegal boobu nekkuma woon Sonko 2016 nekk je ne suis je n'étais pas Sonko man dama ñëw dafa woon sax politique waa ji ma jaay sama cantine HLM 5 moo ne ma moom politicien la benn xalkulaar la politicien la ci Macky Sall la bokk moom moo ma gis mu ne ma. yow vraiment sama cantine bi nga xam ne dama kaa tëjoon mënu ma ci jaay dara ma tëj ko pendant des mois kenn bëggu ko jël yow nga jël yow nga jël cantine bi dama lay expliquer rek rox kay yow nga jël cantine bi defaraat ko ba mu nice indi sa musique indi sa micro di animer nit ñi di yéeg ba sama yeneen cantine sax léegi ñoom tam dañu am business mu ne ma yow da ngaa mën a wax est-ce que doo ñëw nga jàppale mi ci politique bi man noonu laa duggee ci politique de noonu laa ci duggee yàlla moo mu ci dugal ba ma ko waxee ma ne ko noonoo man man affaire politique du ma ko def mais ma toog une semaine ma ne mais pourquoi pas lii war na mën nekk opportunité pour man kom pour sama koñ parce que man damay ñëw Sénégal ñibbi si indaale sama 60 millions mais je rentre définitivement au Sénégal ba moo xëy loolu ma ne pourquoi pas une semaine après ma woo ko ma ne amul problème léegi dinaa la jàppale naa jàppale Macky Macky Sall. sama koñ dinaa dinaa def politique temps yooyu xaw ma Sonko dama koy dégg rek xaw ma sax kuy Sonko ba moo ko jàppalee xaw te boobu xaw ma Mamour kii retrouvé wu ma Mamour Diallo waa jooju liggéey ak naag moom presque six mois six mois ñu trahir ma waa APR dañ maa trahir parce que damaa jëkkati sama deux million waa ji ba mu waxee lool mu ne ma benn ministre lay liggéeyal bugguma sax tudd ministre bi naa ko suturaal mu ne ma garaawul loo ci def rek après dinañ la delloo mu yóbbu ma ci kër ci frère ministre yi ma toog ak ñoom wax ak ñoom ñu ne ma amul problème ma ne leen man de sama koñ moom wóolu nañ ma man mën naa leen gañel HLM amul problème man je musuñu gañe HLM APR ñu ne ma amul problème loo ci def dinañ la rembourser ma yëkkati sama 2 million organiser ay ay euh, euh, euh, lu mu tuddati meeting def naa caravane mooy ci élection législative def caravane def mi def deux millions su may def sama caravane damay louer sama chaise xam nga defar samay beñee jënd samay rani distribuer ñii ma may leen xaalis xam nga rek sama koñ moo tax regretté wu ma parce que xaalis boobu sama koñ la dem jënd ay t-shirt sama koñ dafa am benn booy bi dafa imprimerie ma dem mu defaral ma ay flyers mooy papier yi ngay ñuy bind affaire Macky Sall bu mel boo ko yaakaar xam nga est-ce que yaa may dégg xam nga rek man naa Mister Shake damaa mën a xeex man lépp lu may dem damay dem 100 pour cent comme wax naa ak ñoom ñu ne ma amul problème ma moi si j'étais naïf j'étais naïf ma yël sama xaalis def ci dem ba gañal leen gañal leen delloo leen sama xaalis ak li ngeen ñu diggoon liggéey yi ngeen ñu diggoon ak yooyu gars yi trahir ma billaay wallaay taalaay nii rakku ministre bi ma woo ko di ko wax ma ne ko mais yow vraiment léegi dama bëggoon li ñu waxante woon def naa ci lii indi leen sama euh, ba pare defaral leen benn benn benn benn document waa ji ne ma defaral benn document ma yóbbu ko ci ministre ma defal leen benn document jël sama temps tapé ne leen nii ak nii ak nii boole leen ma joxee temps lii laa leen di liggéey lii ak lii HLM lii la ñuy def lii la ñuy def nekkate waa jooju ma daan use lépp lu ma liggéey moom day dem ci ministre bi ne ko moom moom may financé ministre bi di ko jox xaalis <laughs> muy dugal ci poosam est-ce que gis ngeen gis nga Sénégal lu mu mel ak li ma ko defal yëpp cantine maa maa ko defaraat est-ce que yaa may dégg indil ko business cantine ma jël ko fay ko 65000 par mois laa doon fay 65000 pendant 8 mois defal ko politique mais noonu la ma trahiré rakk ministre bi ma woo ko mu ne ma yàlla na la yàlla fay billahi wallahi taalahi loolu la ma ci tegal sama 2 millions noonu laa ko perte ma bàyyi xam nga dafa gum naa ci 2 millions ma ne amul problème man damaa gëm yàlla su ma neexoon dama leen di vilipender billahi wallahi taala mais dama ne jaru ko ma gëm yàlla ma bàyyi leen xaalis bi ma gëm yàlla ma ne leen jël leen 2 millions amul problème ñi ay jaam lañu mais yàlla li muy def yàlla nag foofu laa retrouver waat mag Mamour Diallo kon xam nga Mamour Diallo tax dugg ci affaire noonu laa def nag benn jour ma ne nii leeral rek gis Mamour Diallo ñu ngi koy accusé ma ne ko yow kii sama sama sama waay la Mamour Diallo non mënul def loolu ci laa retrouvé Mamour après laa ko expliqué ne ko man yow gis muy def man xaw ma woon sax ngi APR man tamit jàppale naa leen mais gis nga dama leen jàppale ñu trahir ma ma ne ko man damay bàyyi sax mu ne ma noo garaawul bul bàyyi ñëwal nga jàppale ma ñëwal nga jàppale ma parce que man it dama benn mouvement Louga man ko amul problème noonu laa ci dugaatee noonu laa ci dugaatee est-ce que yaa ngi may dégg ba mu ciy dugaat nag 94 milliards yi ci la ñëw mais man ku ma xam man damaa mën a xeex mais Sonko temps yi may défendre maam Mamour jàll defal naa ko ay vidéo yu du jeex di def di ko défendre ci affaire 94 milliards. mais man Sonko musuma ko attaqué ci lenn Sonko musuma ko attaqué ci lenn lu dul 94 milliards parce que man. xeexuma liggéeyuma pour Macky Mamour Diallo laa doon liggéey moom laa doon defaan sama waay la dama doon dama ko doon jéem dama doon jéem a prouver nit ñi que ne Mamour sàccul 94 milliards di génne ay vidéo di dal ko di jàppale Mamour di dem Mamour di di di wan Mamour euh, ban genre nit la ah dem naa Louga deux fois deux fois wala une fois Louga dafa mel dem naa une fois ak kërëm bi ak Tiwaawan invité na ma ma dem gis limi def Ray ray ay gëléem Ray ay nak, dalal nit ñi ay car di jóge fu muy muy muy muy muy yoy la gis di film xam man dama mën dama mën événementiel mais Sonko mais Songko, xam nañ ma Sonko après nak ci la sétane Sonko 31 décembre parce que man buma lay xex dama lay 31 décembre bi ko invité c'était la première fois ma déglu Sonko debout du début à la fin deux heures de temps Sonko daal Ben erreur la def 31 décembre deux heures de temps ma déglu ko ne kii borom bopp la kii nii ma gis nii borom bopp la man commencé jébbalu Sonko mais 94 milliards mom D'accord, ma ci ak mom mais 94 du dara parce que Sonko opposant la lepp lu mu mën def pour khas Macky Sall dina ko def lepp lu mu mën def pour accuser accuser Macky Sall ci 94 milliards même bu fekkee ne dëgg la du mais su rôle am lay def bu gisee 94 milliards am lu ko ci jaaxal am na droit mu wax mais man euh, mais man non xaaral après loolu de ci la force de son ami est difficilement défendable loolu yëpp dinañ ci wax mais man ci laa commencé di défendre Macky mais man Sonko musuma moko. dama ko doon nag dama doon saboté dama ko doon saboté par exemple ben jour mus na dem Casamance ben mère topp ko Sonko même chip Sonko même chip chip chip ceeb way Sonko Sonko même chip Sonko Sonko gàdd yi mère. maire bi temps yooyu man maam Diallo la doon défendre léegi vidéo dama koy jël xool leen Sonko maire baa ngi koy topp di ko wax même ceeb bugg ko sax may ceeb ay waay Sonko dimbaleel maire bi maire bi ah sa mbokku Casamance xaw ma sax ndax Casamance la xaw ma du Casamance la je pense que Casamance la woon ay waay Sonko xanaa mën nga yëkkati sax benn dix mille may maire bi ay waay Sonko mayel maire bi garde yi ba mbax ko noonu laa doon attaqué Sonko mais man musuma wax ne Sonko amul xam-xam wala lii wala laa léegi après 94 milliards aussi dama doon vous ay vidéo di wax ne Sonko par exemple 94 euh, milliards ça fait? parce que buñ ko sàccoon Sonko du ko jéem récupérer parce que Sonko corps, dans le moment Sonko dem na moment mu xaritam avons wax Ismaïla créé Mercalex Et euh, Sonko corps, mon Atlas avons fait une réunion la famille Aujourd'hui, audio bi déglu deux heures de temps man du ma audio bi bo len beugé ma génné ko bële passé ba mu leen waxee ci affaire interview pap ali ñu bari gëmmuñu boo leen beugé inter audio audio bi Sonko tok ak famille lébu yi complot Sonko né dañ ka complot après loolu la wax dañ ka complot am kuy enregistré enregistré deux heures de temps nga dégg Sonko di leen expliquer bu len yaakar né 94 milliards état bi da fay ñëw rek joxé ko ni état bi ak ah,

Mamour Diallo sàccul 94 milliards billahi wallahi wa taalaahi sàccu ko Pape Alé Niang ci boppam wax na ko 2 milliards kii moo génn léegi kii nee na ma expliqué xaalis Macky Mamour Diallo fan la jëlee xaalis d' abord il faut nga wax ma lan ngay wax xaalis man de man de ñaari kër laa xam laa gis si moom kër gi nekk euh, Louga a kër gi nekk. Tiwaawan laa ko xamal te Mamour Diallo cadre la man maa doon jël P Mamour Diallo doon jël deux dañoo mën a jàng ba ñu waree jàng dañoo jàng Mamour deuxième semestre sax moo ma raw pour vous dire terminal deuxième semestre parce que moom da doon jàng ñun ñoo fa nekkoon di foo di kii mais moom dafa sérieux woon barke Rasul laay ñun dañu amoon benn groupe boo xam ne dañu dem ay boîte Mamour Diallo du sax dem ay boîte parce que moo sam beneen copain bi <laughs> jubóowuñu woon am na amoon benn copain bu tudd Papa Ndiaye bu nekk Saint-Louis Papa Ndiaye Pikine la dëkkoon mais moom Mamour jubóowuñu man naa nekkoon intermédiaire mais Mamour daanu sax fréquenté ñun ñoo fa nekk di dem benn jour sax mos nañu organiser soirée foofu euh, Saint-Louis mais Mamour jàng jàng jàng deuxième semestre pour vous dire sax moo ma raw dafa mën jàng. man ba ma pare université laa dem Mamour jàll dafa def concours ENA ENA ba muy dugg moo jël P Sonko ba muy dugg enaa moo jël P Mamour ba muy dugg moo jël P ba muy génn moo jël P est-ce may dégg Mamour jàll ak Sonko yàlla moo ko def 94 ñëwaat yàlla moo ko def seen destin yàlla mooy def lu muy def seen destin moo an man ma bokkaale ci xam Mamour ba pare ñëw nekk njaagu Sonko mais xoolal li Mamour ba muy dugg ENA moo jël P Sonko ba muy dugg ENA moo jël P ay boroom xam-xam lañu Mamour carrière def na minimum xanaa war na def trente ans de carrière te moom kii la commencé contrôle concours la njëkk a def contrôleur contrôleur des impôts ñu affecté ko Kaolack mu commencé di loué ay ay ay ay. ay ay nekk ci immobilier bi am ay tool am ay tool jënd ay kër commencé louer loolu toog na naa frère am Babacar mu expliqué ma loolu yëpp lan moo tax sëñ Mountakha fonk Mamour Diallo Mamour ba muy nekk Kaolack bañ ko affecté Kaolack da doon jàppale sëñ Mountakha ci lu bëri foofu billaahi jàppale na ko ba mu nekkee ba mu amee responsabilité parce que tamit defe naa nekkoon na directeur des impôts directeur des domaines xaw ma fan du risque xaw ma je sais pas mais yàgg na jàppale suñ Mountakha suñ Mountakha doom la ko def daf ko doomoo dafa yàgg am jom teel a xam am sens du business man j'ai pas j'avais pas le sens du business nee naa la Mamour ba muy ba may nekk université oto la wàccee suñu HLM oto le temps yooyu xale la amagul sax temps yooyu mu ngi mu ngi am vingt vingt vingt cinq ans vingt six ans 24 ans oto la wàcce nit ki nag du liggéey nekk cadre pendant 30 ans ba mu waree jàng mu jàng ba mu waree liggéey mu liggéey xam nga la mooy inspecteur des impôts laaj leen ko Sonko nee na boo jëlee pay yaay tànn Mamour inspecteur des impôts dañu am ay avantages dañ leen di jox ay terrain impôt inspecteur des impôts dañu am avantage parce que dañuy bañ ku leen jënd. gouvernement bi day ba ñu corrompre leen fan la jëlee xaalisam il faut ngeen wax ma lan mooy xaalis man de ñaari kër laa ko xamal euh, Louga Tivaouane bu dee am na kër dakaar xaw ma ko man mosuma ko gis bu dee am na kër Dakar mosuma ko gis nit ki balaa nga koy jiiñ mais dangay ngay génne far Farba Ngom neex naa neex naa jiiñ Farba Ngom neex naa jiiñ parce que Farba Ngom da léegi nii sama sama sama live bi lan laa leen génneel ku ñu ne jabaru Farba la yoro presque cent millions kooku neex naa jiin est-ce que da ngeen ma génneel jabaru Mamour jàllo muy xawaare comme comme comme Farba est-ce que da ngeen ma génneel vingt sept gàlle Mamour Diallo directeur domaine la woon directeur domaine est-ce que dafa am vingt sept gàlle génneel leen ma vingt sept gàlle boo lu ko génnee ma nag ah ma ne sama waay ji nag dinaa ne ko ah waaw saa yi sama waay nga nag waaye waaye Mamour foo jëlee 27 gàlle man de musuma may teere musuma ko ñaan am na sax ñoo bañ xaw naa fi xuloog moom bañ parce que dafa ma doon jéem a di wax ndax teere ndax dalaa may dugg na fi génn nekk ak naa moom deux ans musuma may ko ñaan mais bu amoon daf may may Mamour Diallo gëm naa ne bu amoon terrain daf ma koy may mais man musuma ko ñaan musuma may tere dama doon liggéey ak moom mayuma joxuma xaalis boo xam ne kii milliardaire la ah bu dee milliardaire la de kon dinaa ne Mamour Diallo nay na ndax man ma nekk waayam nekk waayam ah ñëw di liggéey ak moom di ko défendre di ko xelal nekk conseil man de billaahi wallaahi taalaahi bu dee milliardaire dinaa ne Mamour jàll yow yow yow ah kon kon yow meloo ni parce que man damaa gore man moom damaa baax man bu amee xarit moom dama lay may xaalis ba nga daw man de billaahi wallaahi taalaahi mayuma xaalis billaahi mayuma parce que Mamour dañ doon joob dañ doon joob amul amul lu ma loo xam ne mën naa ne daf ma ne par exemple am ma may la kër gi wala am euh, ma viré la euh, compte bi wala lii wala li jamais amul ay xarit la ñu ne man gëm naa ne li ma ko ko def li ma ko defal defaluma ko billaahi wallaahi taalaahi Mamour Diallo li ma ko defal defaluma ko li ma ko defal ci ay vidéo maa ngi nii tey di wax ci moom di ko defaan ba ay patriotes yu bëri di leen yaakaar ne sax man damaa contre ko te yàlla xam na ne man maay njaagu ko léegi nag ma wax la lan lan motax ma bayyi comme APR dañ ma trahir ma and ak Mamour Diallo ma gis Mamour Diallo ma and ak mom lu Mamour ma gagné HLM ma gagné HLM ma nak ñi ñu doon liggéey fofu pour la première fois Mamour Diallo gagneel Macky Sall Louga Macky dak dal di ko dak Macky Sall. après élection yi législative bi dafa dàq Mamour Diallo directeur des domaines ci laa toog ñu toog ñu ne ah xëy na dina ko jox dara mais ba ñu toogee gis ne Mamour Diallo Macky Sall da kaa sacrifié man yeewu naa 94 ñëwaat ma ne Mamour bàyyi naa bàyyi naa APR bàyyi naa Macky Sall parce Sall jaam la aw ma droit def loolu ñu ne lu tax ngay ànd ak APR. mais ñun ay nit lañu boo ànd ak Macky Sall dem ba ci biir xam ne Macky Sall jaam la looy def da ngay continuer ànd ak Macky Sall non dama leen di laaj ñu naan ma lu tax ngay ànd ak Sonko mais ba ma demee ba gis ne Sonko moo nekk moo yor dëgg bi mais mun boo ma juumee dama naan damaa juum Macky Sall daf ma nax comme nu mu naxee quatre-vingt-dix pour cent des yéen ñii yéen a ko voté loon 2012 est-ce que xamoon ngeen ne Macky nii lay bone man au moins am naa xel. yalla bëgg na ma ba ma demee ba xam kan moy Macky Sall ak kan moy wa APR né ay jaam lañu dama génn man néna la bay won na ba paré Mamour Diallo moma xëccat man APR dama paré won ci ñoom man Mamour la doon jappalé après ba ma jàppalee Mamour ba Mamour gagné parrainage lu né mu défal ko mag Macky rek ndigam sacrifier ko ci 94 milliards parce que nit ki buñ ko jiiñee 94 milliards nga dakhou ko loolu moy yow ya def Macky Sall kan lañ fi jiiñ sacc mu dakhou ko amul képp ku sacc da lay protéger ñu ngi euh, euh, euh, euh tal ñebbe xawma lan ministre enseignement supérieur mambay Mbaye dañ ko jiiñ mu téé ko Aliou Sall pétrole bi dañ ko jiiñ gis nga bi ngi fi ba légui di génn di menacer Sonko képp ku ñu jiiñ sàcc bii bi Balde gis nga directeur bi wane mais Mamour Diallo képp moom la ñu jiiñ sàcc Macky Sall dàqu loolu jaaxalu leen Macky il protège ses voleurs moom la Pape Niang Pape Alé Niang di wax Mamour Diallo porté na plainte lan moo tax bàyyi Macky Sall bàyyiwul plainte bi dem tribunal mu nag ko di yónni ay ministre am ñuy xas Mamour Diallo tay mu ngi ni Aliou Sall demb genn na di défendre Mamour Diallo Aliou Sall genn na di défendre Mamour Diallo mais ay nafaq lañ yéen ko dàq tay mi ngi ni di bëgg Louga ñen bañ ko ko jox lu bon bon mënon nga wax Moustapha Diop bayil maire Louga ak Mamour Diallo ay nafaq lañ Mamour nak moko def parce que man avertir naa 2019 man ko Mamour bayina man Mamour Diallo WhatsApp bi lañuy lañuy wax lañuy wax. wasab bi la wax bu ko jaree bu ko jaree tey bu ñu demoon ba ba ba ma war génn ay preuve ne Mamour wax naa ko bàyyil bàyyil Macky Macky jaam la billahi wallahi taalaahi communiqué naa ak moom loolu yàgg na man avant may ñëw Amérique laa bàyyi Macky avant ma ñëw Amérique laa bàyyi 94 baa ngi bële laa bàyyi Macky ma ne Mamour bàyyil Mamour dëgër bopp non non grawul sa bon man Macky amul problème Mamour deugal bopp man tok naag ci biro Mamour Diallo gaay yi dañoo meroon collaborateur Mamour Diallo Macky sala jaam la li li man ci bokku na ci ñu mujju man mënu ma gëm ne Mamour Macky sala da koy trahir mais ñom yenn collaborateur yi naan nañ bu yag ne Macky sala jaam la ay halpular sax diko wax billahi wallahi tallahi musna tok ben halpular mune ma Macky sala jaam la 100% Je pour Mamour mais je suis ak naa Je collaborateur Macky Sall Macky Sall yo euh, ne ma yow un yow abonné dama laa faale Je ne mu pas ma ma je damay désabonné Moussa Fall duul abonné désabonné man dama neex désabonné ma Diallo sur les 94 milliards yow Doul, sénégalais lii moo tax doo leen dem man dama laa faale yow boo abonné lan la may def man sama la man live bi sax léegi ma arrêté ko incha allah man léegi ma bàyyi man dama man dama faale ay abonnement man su may ànd ak Sonko yow yaa tax ma ànd ak Sonko man faale ma la faale wu ma Sonko man dinaa ñëw su ma ñëwee Sénégal du ma sax seeti Sonko pour vous Sonko soxlawu ma ci moom dara bugguma ko sax xam su ma amee lu may cotiser ma cotiser su ma waree def may video di ko défendre ma défendre. man meluma ni yeen yeen man senegal lay xexal man meluma ni yeen Sonko xamna ne mo bax ci senegal motax ma baye mark Sall ñew ci Sonko mais con yi pour ñom nit ki dal waro mënoon waro waro won mën far mark Sall dem ba ci bir xamne ki jam la nga bàyyi ko mais yeen ñi ñepp mark Sall ngeen faral 2012 kan moko kan moko fi tek kan moo fi tek mark Sall 65 naafeq yu bon yi kan moo ko fi teg man 2012 Wade laa laa àndaloon billaay wallaay taalaay maa ngi woon Amérique laa àndal bi nit ñi voté leen Wade xuloo naa cee nit mu ma ne lay voté billaay wallaay taalaay mooy naa cee nit mu promettre ma ne Wade lay voté dem ba ci biir mu ne ma noonu voté lu ma Wade parce que temps yëpp ñëpp a benn woon man Wade man Amérique laa nekkoon kooku dama xaam mere man koy yaa mën a duut yow li nga ma wax yëpp ne Wade ngay votel Nelson tu fais partie des rares personnes yu votel Wade xanaa xëy na PDS xëy na PDS moom mais 65 pour cent Macky Sall dañuy Macky Sall dafa mën a fen mais Macky Sall ñëpp la nax mais Macky Sall bu duloon Adji saar bi mais day jaar suñu kaw bu duloon affaire Adji Sarr ak Sonko Macky day jaar suñu kaw. Yo, sama live bi tay lol la malik Sow wax naa ci ba paré fo nekkoon il faut nga reculer film bi malik Sow mi di wax bind nañ dañ ko jàppoon ci 28 millions yu mu sàcc ñu tëj ko ah lire naa ko fi sànq ah hadi Badji je suis le Ndiago de Sonko je suis pas le Ndiago de Sonko man nekkuma fi pour pour convaincre ni wala may convaincre Sonko man Sonko sax faalewu ma pour vous dire Sonko bëgguma sax mu xam ma man maangi amerique maangi sama teranga man senegal dama ci doyal complètement buma ma nak Sonko nek président senegal doyal na ci man dama faalé ay senegal man bëgguma poste <laughs> ñaanal ma sama liggéey bi ma am yàlla ci gaaw dem ba liggéey barke man maangi amerique man dama leen sama jabar ñew

ñuy doxandoo seconde première terminale yàlla def ñu retrouver waat kooku même bu nekkee ci jafe-jafe waruma ko sax trahir man bu ma ñëwoon di xas Mamour Diallo yéen da ngeen ma war a bàyyi ne kii kat bu demee ci Sonko tamit nii lay def lii moo lay wan ne man su ma nekkee ci Sonko duma ko mës a trahir parce que Mamour Diallo même bu fekkee ne c'est le pire ennemi de Sonko c'est mon ami bëgg poste ci Sonko wala bëggul lu neex ci Sonko du tax may xalab Mamour Diallo ci loo xam ne amul ay preuve affaire Adji Sarr bi su ma doon défendre Mamour Diallo foofu laa koy défendre booboo garaaw ndax boobu gorom lañ ci tudd boobu gorom lañ ci tudd man nag boobu Mamour nee naa ko Mamour a ah, li ma tudd sa goro bi de muy dégg jaaxal na ma Mamour vraiment man xamewuma la fay fayunt mais mamou Diallo nit la mom la expliquer Ibou diap waa jooju génn la motax Karim fum xax di dal parce que Karim defane yow mais yow waji waji yow yow ne nga da nga nekkoon ak Mamour Diallo di complot di complot di complot nga xaar ba heure bi 14 morts amoto lu la neex ci Mamour Diallo xamuñu ndax Moustapha Diop moo la yéen wala kenn la yéen nga génn fii di wax ba pare Pastef waa Pastef ñëw di la di la di la def nii Fatoumata Danso tamit wax na ko boo waxee ñu naan da ngay défendre nit ki seedeel lay def seedeel man du ma naafiq Mamour Diallo il n'est pas comme ça il n'est comme ça du genre nit buy wax nit xasal ma Sonko Mamour bu bëggee ku ko Sonko am na yeneen pexe yu muy def mais du jaar ci dof boobu Mamour bu doon jaar mën na jaar ci man youtubeur youtubeur conseil youtubeur sa xarit nekk youtubeur kooku bu doon wax lu ñaaw ci Sonko man lay wax man loolu ma jaaxal ci moom loolu moom a jaaxal ci sama waa ji ak Sonko li mu ko def yëpp man may liggéey ak moom musuma wax Mister Shake saa ji daal dama bëgg nga xas ko wax ko lii avant aji Sarr wax ko lii wax ko laa wax ko lii billaahi wallaahi watalahi au contraire lu baax benn jour lii dama kaa mënul wax rek dama kaa mënul wax rek des fois sax day wax lu baax ci Sonko benn jour Mamour Diallo mos nañ topp mais loolu mënoo ko révéler waaw xam nga benn jour mës na ma wax ci Sonko lu Sonko ci affaire Sonko loo xam ne man nii tax daf maa jaaxal billaahi wallaahi wataalaahi bu fekkee ne li may wax du dëgg yàlla bu dee safara am na bu dee safara am na ne yàlla na ma yàlla dugal ci jexeen la xaw ma jexeen lañ ko tuddee jaxal na ma xaw ma jexeen bi gën a tàng yàlla na ma yàlla dugal foofu di ma lakk te bu ma mës baal Mamour musna sédé lu rafet ci Sonko man dama waru sax jour bob lu rafet kon mom amul rancune parce que bu amone rancune bu amone rancune bob ñi wax lolu mu ma seedeel du ko ko sédé dama ka mënul wax nak parce que du lepp ngay wax seulement lenn nit la xam nga laa ngeen comprendre Mamour Diallo lu mu baax baax baax baax baax nit la bu fekkee ne bu fekkee ne dem na ba ci biir gis ne carrière am yàqu na ndax Sonko ndax Macky Sall ko dàq au mu ne Macky moo ma dàq mu ne Sonko moo ma dàqul mu bugg ko jiiñ Sonko nit la occasion am. nit jóge fële ne ko Sonko ñi ngi maase wu dugg na fii génn fii waxuma ne moom la de yàlla def seytaane dugg ko ba mu ne day fayu mais xamul ne buy fayu yëf yi nii lay demee moo tax fayantu baaxul man du ma man du ma loo def ma lay bàyyi parce que man damaa gëm sama bopp Mamour nag bu defee erreur erreur boobu la def bu defee erreur erreur boobu la def parce que gorom lañ ci tudd gorom gabi moom la ñuy wax show man gabi laa ko xamee sax dégg ngeen xam a waxoon naa leen gabi Babacar Touré keroog ba muy wax gabi la wax moom tamit man gabi laa ko xamee waajur gabi un gars correct vraiment man li ma am ak moom kii waajur réservé la sax wax dëgg mooy ñëwee moom nuyoo xam nga mu jeex gabi ñëpp ko respecté foofu bu dee moom nee na moo recevoir Adji Sarr deux semaines avant joor euh, Diagne ji wax ne moom moo bind plainte bi moom mu ne Dior Diagne bind looloo ko ci dugal loolu moo dugal mu Diallo ci affaire Adji Sarr naan oto bi moom laak moo moo yónnee Adji Sarr mais yooyu yëpp ñu koy wax mais kenn sañul génne preuve Pape Alé ba mu amee PV da kaa génne ay dara ba mu amee. Euh, kii document médical bi rapport médical bi dakaa génne Ndeye Khady Ndiaye ba mu waree wax dafa wax amul lu muy ragal fii boo waxee kenn du la tëj kenn du la tëj boo waxul nag noppal leen nit ñi boo leen amee ay preuve génne leen ko boo leen génnewul preuve kenn du leen gëm nit kooku génn fii di yuuxu di tëb di daal Malick Sow la tudd xaw ma Mamour moo ma wax defal lii génne la nee na Mamour dama porte plainte Mamour dof na bay nag fi naan da lay porte plainte lu tax mu lay porte plainte bu la porte plainte Moustapha Diop loolu la bëgg bu la ñu nekk ci campagne élection yi dimanche mu ne day porte plainte comme ça affaire bi ñu au lieu ñu wax ci programme Mamour Diallo ñu commencé di wax ci affaire 94 milliards lu tax parce que Aliou Sall génn na di défendre Mamour Diallo ci 94 milliards Moustapha Diop tiit man noonu laa ko jàngatee de daal di yónni waa ji ne ko demal wax waajoo ji du Pastef de maa rëdd Italie kooku kay Pastef waru ko soxla. yow loo waxante ak nit même bu doon sax li muy wax dëgg la nga waxante ak Mamour Diallo lii nga dem ba ci biir bu ko bu ko jébbaane nit ñi mais dafa ñaaw te yow ñu ne da ngaa sàcc vingt huit millions ñu tëj la lu yàgg ci kaso bi quand même nañu waxante dëgg waaw man li may wax rek mooy bu dee dafa def erreur Mamour jàll bu defee dafa def erreur mais dinañu xam dinañu xam mais ba fi ñuy wax ak yéen amul kenn ku génn benn preuve. ne Mamour Diallo laalee na ci quatre-vingt ci affaire Adji am nañu ay subson nag wax dëgg loolu moom du ma ko weddi am nañu ay soupçon parce que sa goro bu dee moom moo génnal boppam sa goro bu dee moom moo génnal boppam mu ne recevoir na Adji Sarr loolu moo teeloo xelu ñëpp waaye loolu bu dee am na man audio bi ma bàyyil Mamour jàll mané ko Mamour sa goro bi may deug ci yef yi nak nu mu demee noonu ah Mamour budé def nga loolu erreur nga man xameewu ma la fayantu xameewu ma la fayantu julit day balé xameewu ma la fayantu budé ya ko def Mamour répondre ma ci loolu je le comprends man ma ngi ni wa APR bañ ma trahiré est-ce que dama fa nek di dem di def ay vite pourtant youtubeur la suma neexone bañu ba sama 2 millions fen ñu dañuy leen di outal liggéey dañuy def ni comme niñ ñu def Fatoumata Soul Tampi rek suma neexon ma génn sama vidéo attaquer rek ministre bi attaquer ministre bi Nek fa di yuxu mais dama xamné 2 millions jaru ko da nga leen di baye ak yalla tay sama ak dalu leen ministre bob muju niñ ko dak sama ak dalu leen te terewul ma ngi ni je suis toujours en vie fayantou mo baxul nit da ngay gëm yalla Mamour Diallo lan la nam poste directeur des domaines loolu mooy lan yow nga def 30 ans de service am nga kër Louga am kër Tivaouane Dakar xëy am nga fa kër tamit nekkoon nga directeur des domaines lan nga namm Macky Sall trahir na la Nala, na la Sonko nee na da nga me mais bàyyi koog yàlla nga mais dem ba tey ñu lay tudd di wax est-ce que tamit du ay gars yu ko wër ñoo bëgg lu ñoom ñu dugg ci ay complot yu ma xamul loolu tam mën na ne parce que gars yi tamit des fois dañuy def loo xam ne kenn santu leen mën na ne mais man de bu doon man Sonko bu ne yaa sàcc sàcculoo garaawul Sonko defuma dara politicien la Macky Sall moo la dàq wax naa ko Mamour Diallo billahi wallahi taalaay wax naa ko nee na ko yow bul mere Sonko Sonko defu la dara bul mere Sonko Sonko rôlam lay def Sonko c'est un poli... lan moo tax ma dem and ak Sonko man Mamour yalla man dama téré and ak Sonko fofu ngeen xamé né ki nit la man bama paré ci Macky Sall dama ko wo né ko Mamour ligéel na la Macky trahir na la Macky trahir na la bayil Macky mu bañ continuer and ak Macky ma ko nak man Mamour paré na té man légui Sonko lay andal wax naa ko ko sama nami Mamour tudde naa ko doom Mamour Diallo tudde naa ko doom tellement jikkoom dafa maa doy billahi wallahi tallahi tuddee naa ko doom tellement jikkoom dafa maa dafa maa doy mais man man saay man américain laa américain laa dëgg rek man li ma gëm rek laa gëm Mamour lu mu nekk sama xarit xarit xarit xarit dama ne ko Macky Sall la jaam laa Sonko nag moo fi sës loolu laa wax Mamour Diallo bu dee sax Sonko dafa bon sama yoon nekku ci Mamour loolu laa ko wax ma ne ko Sonko c'est vrai que mi ngi wax ne yaa def lii yaa def laa def mais fu mu nekk nii man Sénégal laay xool Mamour Diallo je lui ai ma ne ko man senegal laay xool en tout cas su may choisir entre Macky ak Sonko du ma sax hésité man je choisis Sonko nii laa ko waxee Mamour Diallo tegu ci baat. mais membre du ma wax dara ne bul ànd ak Sonko mais moom xam na ne su may ànd ak Sonko damay ànd ak Sonko ci programme Sénégal mais 94 milliards ba ba may sangoo damay nit génneel ay preuve ne ma Mamour moo sàcc mais tant nit génneelu ay preuve fi di wax rek la te même bu même bu 94 milliards sama xarit la du ma fi diko di lumay waxante ak mom ci souf lay waxante ak mom ne ko li te man xamna def ne mais mom musuma bu don dafa bon daf may mer rek ci li ma ak Sonko man dama dem bané man ma ñagu Sonko di ko lu bon bon gel na Sonko ben way sama xaliss la jël jël sama temps pendant 6 mois bobu affaire Adji sar sax amugo ñu bari dañu yaaka ne man opportuniste la man limay gis yeen gisulen ko ma len ëpp xam-xam fouf avant affaire Adjissar, six mois avant là commencé à wax maa njaagu Sonko suis ko woy ci tali ci tali samay abonné suis fi duñ ma bàyyi ma fen boobu kenn je suis affaire Adji Sonko 15 la am amul sax un sax ma New York yi man maa njaago Sonko xeexu njaago suis jeex fii lekk amuñu ndam suis un weddee je brimel sama abonné yi un leen ci way bi xam affaire Adji Sarr bi ñëw mais affaire Adji Sarr ba mu ñëwee man du ma naa feex dama analyser dama ne bu dee Sonko moo tooñ carrière day yàqu bu dee Macky Sall moo tooñ Macky day daanu jël la il faut mu am dem leen ngeen seetaan samay live man du ma man duma ma ànd ak Sonko nii rek di ko di ko faral Sonko bu doon li ñuy wax dëgg la moo ko def ci Adji Sarr dañuy dal ci kaw ñëpp koy bàyyi mais comme dafa am ay accusation xamuñu fan la dëkk bi ne dëgg bi ne ñu ne nañu toog ñu xool saaga nañ ma fi lu ne wax nañ ma fi yow mii da ngay soob doo jaagu Sonko lu tax ngay critiquer Khady Ndiaye nde Khady Ndiaye au début gëmuma ko El Malick ci boppam critiquer critiquer critiquer na nde Khady mu ne li mu wax dëgg noonu la nit noonu ngay mel day Xadi Njaay bu ñëwee tey mu wax lii suba mu wax lii suba mu wax lii El Malick ci dem na ci benn télé xaw ma ban télé critique ko man tam temps yooyu dama doon wax Ndeye Xadi Njaay mii li muy wax nii nekk parce que ku wax naan Sonko ñëw na seet si ko foofu tabaski tabaski Sonko dina ñëw di maase wala tabas tabaski loolu man genre man dama doon analyser ma ne Sonko bu dee dañu am ay vidéo ci moom ah bu boobaa affaire am dina yàqu parce que dafa def imprudence

barki rasoolu laay duñ fi nekk di ut ay duñ fi nekk di ut ay film naan yaa yaa maase maase wu la dañ lay rey dañuy jël aji saar jox ko benn pomade ne ko solal gant pomade bi bu ñëwee diw ko ko xoolal dañ ko koy diw Sonko bu demee këram un mois après day dee man foofu laa doon waxee ma ne Sonko dafa def imprudence waruloon dem ciy génn Issa Diène musul dugg foofu musul fa teg tànkam isa Diène waat man xam naa ne Seydina Sonko mu sell ma musul fa teg tànkam mën naan leen saa yi leen ndànk ñu may saaga mën naan leen saa yi leen ndànk Sonko xanaa nag ñii ñamewuñ nag bay ñëw naan Sonko dem na fa di maasew Issa Diène musu fa teg tànkam di waat barki Rasulaay man ñu may saaga mais Issa Diène dafa dëgg dafa génne vidéo boobu si suba si <laughs> Sonko def conférence de presse ne effectivement dem naa fa xaw ma leen ba ma nekkee xale dafa amoon ay affaire euh, euh, yu sama yaay lu ne jënd def na ko xaw graisse yew yeew lu ne def na ko xaw ma lan gën fi génn fii après ci la wax mortal combat affaire bi defe naa jour boobu la waxee mortal combat mané ana Issa Diène ana Issa Diène yéen ñi waxoon mosu fa teg tànkam mais c'est pas parce que tek na fa tankam que def na dara lu bon et puis da ngeen wara comprendre Ousmane Sonko c'est une personne nit la nit la c'est pas parce qu'il est intelligent énarque énarque la mo jël paie bu muy dugg. am na ñaari jabar mais nit la yàlla amul 99 nga turu yàlla amul benn nit bu yàlla defar boo xam ne dafa parfait à 100 pour cent te yàlla des ay mbiram moo doy waar xool leen yàlla fu mu jaarale pour Sonko gën a am doole ñu adduna bi yëpp xam ko ci benn li ñuy wax li ñu yaakaar ne faiblesse la. ah li ñuy yaakaar faiblesse ñu naan dafa bëgg jigéen ak yooyu xoolal yàlla fi mu ko jaarale nattu benn nattu la ko yaar la jaarale Macky Sall yaakaar ne war na ci mën a profité mais ci nattu Adji ci la Sonko nag nekkee chef de l'opposition ñu koy tudd Chine di ko tudd euh, Al Jazeera Macky Sall pourtant man avertir naa ko événement yi bu muy am. man rek Sénégal ba mu daj man rek def live du 6 février au 8 mars chaque jour live man rek man monsieur Shake amul youtubeur ci aduna bi bu def live minimum une heure de temps des fois deux heures des fois ça ma def deux live des fois ma def trois live chaque jour, les petits ci affaire Sonko parce que man dama xamone importance bi mu am le 6 février la commencé live nek di analyser di analyser di analyser ci laa wax Macky wuu Macky lii erreur la bàyyil mu sedd parce que amoo dara loo ciy gagné nit booy xeex booy xeex day fekk nga am loo ciy gagné mais soxal bëgg tëj bëgg tëj Sonko ma ko yow même boo amee ay vidéo Macky Macky dama ne ko même bu doon da nga am ay vidéo Sonko def naka su dul noonu waroo détruire Sonko parce que amuloo. amuloo ci loo ci gagné yow sàcc nga élection 2019 dëkk bi na selaw mais Macky dégluwuma dëgër bopp rek damay dindi mu mbubu di immunité ci laa ne nag jël il faut mu am ñaar ñii man Sonko laa faral de waaye nag senegal la ñu jiital ci laa ne jël day am comme Macky dafa dëgër bopp xëy na am na lu mu jàpp il a intérêt nag mu génn ay preuve leer

Sonko dafa gagné Macky Sall est-ce que vous may dégg affaire n'est du Mamour Diallo ñun du leen jaay xam nga tamit xam nga gars yi c'est très facile c'est très facile Vous voulez jël Mamour Diallo ngeen bëgg ko sëf L'affaire, affaire bi du Mamour Diallo. affaire bi Macky Sall moo ko récupéré nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg Mamour Diallo bu dee moo ko def xëy na lan la bëggoon fayu ci Sonko ridiculiser ñu ne ah yàq nañ deram parce que bu doon mooy comme ni mu la waxee rek bu doon vrai mafia Sonko dañ koy rey pommade ngay jël pommade nga diw ko ci yaram ne Adji Sarr solal gant comme kii man lay jéem a dàqlu impôt et domaine solal gant boo parce que bu la leeral ne après ay 14 morts moo ci am ak ñu ma xamul mais bu boobaa da ngay jël euh, gant gant plastique nga ne ko diwal ko ko mu diw ko bu ko diwoo këram lay dem mois après ay taab yu rëy cancer mu dee du ko jooy fenn xanaa du génn naan dama dem ci benn massage ñu may massé ba ma dee du ko wax du xam temps yooyu ko amul doole Mamour jàllo même bu dee moo def wala Gabi Gabi mom mo wax Adji sar defal li defal li nañu waxante deuk Macky Sall moy responsable c'est pas mamou Diallo Macky Sall boy responsable ndax Macky Sall mo récupérer affaire bi nañu waxante dëgg Macky Sall mo nekkoon à l'étranger mu génn ben communiqué ben tweet la xawmu mu ne bu kenn waxati ci man foofu laa tiitee sax man cest à man mënuma discuter ak yenn gars yi fii xam nga lu tax parce que man youtubeur laa <laughs> te youtubeur yi ngeen di gis Sénégal yëpp ba fi ñuy waxee nii maa leen ëpp jot cinq ans en cinq ans cinq jours rek laa liggéey laa liggéeyal nit ko en cinq ans li ci des yëpp maa moom sama bopp damaa am jot damaa mën a investiguer damay analyser té ñëpp lay seetaan man duma faté yow dul mu nan ma tu défend ton ton ami yow mer na Momar Momar sala suma défendre sama ami lu may def suma défendre sama ami kon diam la yow da amo xarit yow da xawma kan mo sax xarit xarit kay dang koy défendre défendre ak fénal du ben défendre ak fénal du ben mais cest à damay su may analyser dama bëgg ngeen xam ah non bu leen ma yóbbu ci Fatoumata déglu leen rek ma wax leen sama logique li tax ma ne leen Mamour jàlloo même bu fekkee borom Gabi moo complot complot bi après dañ kaa jël Macky Sall moo ko récupéré est-ce que Mamour Diallo moo dindi immunité Euh, Sonko dama leen di laaj Macky Sall ba mu gisee lii waroon na ko jël mu teg ko ci suuf Serigne taxaa wax na ko tegal ci suuf mu bañ Macky Sall moom moo jël affaire bi mu mu yóbbu ko fu mu fu mu eggul mu ne il faut mu tëj Sonko c'est pas Mamour Diallo Mamour jàll amul doole boobu Mamour nekkatul ci administration bi dañ kaa dàq dañ kaa dàq xëy na nag am na lu mu xam. mune eh, mais Macky en tant que président de la république ak limu ci réfléchir Je li, c'est une affaire extraordinaire ma ko mais non insiste, di insister di di pas Mamour Diallo Mamour du ministre de l'intérieur du moom moo militaire, di wax lam est-ce que comprendre nga je non dafa am ay con ngeen baal ma daf ci am ay boo yoo xam ne xamuñu kat ay jaam lañu boo défendre sa xarit yéen bëgg ngeen ak ku mel noonu ku mel ne mi loolu di leen di leen xelal ku défendrul xaritam kuy trahir xaritam moom ngeen bëgg mu ànd ak Sonko ah boo leen xamul bu ñu leen di expliquer da di jéem a réfléchir man waxuma ne Mamour Diallo il est blanc comme neige.

eh eh lol c'est pas vrai li ñuy wax du dëgg Gabi yi mais man dama posé question Mamoud ma ne ko hey saay sa goro bii may dégg ñu ne moom nee recevoir na Adji mais mom, lan la est-ce qu'il est mêlé dans cette histoire ma ne ko si tu es mêlé vraiment Mamoud def nga erreur parce que man ben raison rek moo tax nga ciy mêlé. pour te venger tu contre Sonko ci affaire dàq nañ la te Sonko yow

yow li nga wax nii mooy lan raison de défendre tànnam bi mooy lan man défendre ma kenn damay su amul lu ma leer damay laaj aw ma lu ma leer gis naa goro maag Mamour Diallo mu moom moo waxal boppam recevoir naa Adji Sarr deux semaines avant les événements loolu su ma doon naafeq damay noppi Mamour du ma ko laaj damay noppi rek mais man audio laa envoyé Mamour Diallo audio WhatsApp ne ko Mamour sama xarit la sama xarit la dama koy conseillé ma ne ko Mamour li ma dégg nii jaaxal na ma tiital na ma parce que ton ami laa ci affaire Adji Sarr bi nekkate moom xam nga ne ko nag Mamour bu dee lii dëgg la vraiment fais attention te man bu dee lii la affaire fayantu yoo nga xameewu la affaire fayantu bu dee tuyee muyee wala mom tuyee mu affaire fayantu amul yow ku jullite nga ku bax nga xaméwuma la ay fayantou lol la ko wax est-ce que dama ka défendre est-ce que dama ñew rek nako ko defuloo mais dale ma wax loolu li ma non c'est-à-dire Adama Sagna dafa fi am ay boo yo xamné li motax ñu bëri bàyyi patriote barke Rasulaay parce qu'il y a des gens yo xamné ne ils sont bouchés ils sont ils sont ils sont ils sont tellement fanatiques Le Sénégal du sont avance. Ils sont Sonko bar, bar, bar, Bougoul. Sonko il a toujours raison na Sonko Bougoul il a toujours raison parce que Yalla, rek l'a moom la rek moi, am toujours raison Sonko nit la ñep xam nañ une erreur la def ki wax wax yeguñu won sax ne day dem di massé wu yeguñu ko xamoon nañ ne nak dafa am problème du son Sonko nit la amul kenn ku di wax dem Beauté waxuma Beauté dafa am lu bon de mais warul n'importe quel salon même bu doon Sweet boote ay ay kinési yu yu yu professionnel ay masseurs professionnels ñoo fa nekk Sonko dafa war a def très attention fu muy dugg fu muy teg tànkam ak fu mu dul teg tànkam ndax yow mën nañ la rey mën nañ la rey mën nañ la rey te booy dem booy dem danga war a ànd ak garde du corps da nga war a ànd ak nit kon nag bàyyi leen di wax ne Sonko il a toujours raison wala Mamour Diallo il toujours tort pourquoi parce que dama kaa yeureum <laughs> Mamour Diallo waxna ko ko <laughs> mané ko Mamour bu soxla bo boy patriote du lo waxa waxa wax bañu gëm ba te gëmuñu né yow ya sacc 94 milliards parce que da nga yéx ak génn défendre sa bop mané ko man ma ngi lay défendre luma mën ma ngi génne ay vidéo di joxe ay preuve mais boy bo leen doon gënël preuve fi ba ila yow mi di gëmuñu ko. li tax ñu song sa kër lan moo tax ñu song kër Mamour Diallo première fois bi waa ji nee na Mamour moo taal këram deuxième fois bi kon deuxième fois bi nag parce que tamit faut être logique Mamour wane nañ vidéo ay nit di song këram di sànni xeer waa koñ bi seen bopp ñoo ko doon défendre bu dul woon waa koñ bi kër gi dañ koy taal première fois bi am na ñu ne waa ji nee na Mamour Diallo moo ko def loolu la wax deuxième fois bi moom dafa leer moom deuxième fois bi xanaa doo ma ne Mamour moo yónni ay ay booy ne leen kaa leen sànni xeer pour wane ne ñu ngi këram boobu moom dafa leer waa koñ bi ñoo génn ne du ci dal lan moo tax lan moo tax waa koñ bi di ko di ko défendre parce que nit ku baax la en tout cas seen koñ ñëpp ko gëm man foofu laay waxee waaw. li may wax nag responsabilité yi bu dee euh, waaw kay kii nee na y' a trop de personnalité yaay Bassène ku nekk ku nekk li nga def xam nga ko te ku nekk boo tëddee sa conscience yow dinga nga sa conscience ku nekk li nga def xam nga ko. comme nit ñi dañoo yor ay preuve neen na dañoo am bëgguñu ko génn mais kon nag bu leen fi accuser kenn parce que Ousmane Sonko bañ koy accuser sans preuve yéen da ngeen doon wax génn leen preuve ba ñuy wax naan Adji saar yaa def lii Ousmane Sonko moo def li Ousmane Sonko tata génn leen preuve yi ngeen wax ñu toog toog toog gisuñu preuve kon ñu ne kii day duul ndax biir bi. biir biiru Adji Sarr pour ñu gëm ne dëgg la wala du dëgg il fallait que ñu xaar neuf mois toog nañ neuf mois gisuñu doom kon ñu xam ne Adji Sarr day duul comprendre Mamour Diallo ba fi may ba fi may wax ak yéen benn soupçon bu dul woon gorom bi li mu wax kon du ci laale dara Mamour dar bu duloon gorom gorom bi limu wax du ci laaj gorom bi mo ne recevoir na Adji sar deux semaines avant mais à part ça gennel len ma audio gennel len ma text message gennel len ma lettre gennel len ma vidéo auto yi ñuy wax naan auto Mamour dial lu tax filmé wuñ ko lu tax lii lu tax laa man duma wax kenn ya def wala kenn deful mais même bu defé même bu elle mom responsabilité dafa am fu Mamour Diallo même bu dé daf ci tak responsabilité dafa am fu yem est ndeyu mil bi mu est Macky Sall de ko Macky comploté Mamour Diallo du dara ci gouvernement Macky du dara du DG du ministre. Louga la bëgg nekk maire gis nga Macky Sall mu ngi koy xëccook moom am na nu mu demee sax ñu gañe ko ñu sàcc ko Mamour jàlloo responsabilité dafa am fu mu yem. xëy na dafa bëgg bu dee dëgg la dafa bëggoon venger wu ci Sonko mu am benn occasion mu ne eh xaaral ñu jéem a jàpp Sonko wala ñu jéem ñu jéem a yàq deram fa la responsabilité mi yem mais Macky Sall moo récupéré dossier bi. saa yi ma demee bay wax rek gars di ma divertir à l'étranger la nekkoon il était à l'étranger mu bind benn note mu ne bu ci kenn wax parce que yooyu ñoom yaa xambay mbay xam ñoom dañoo rëy làmmiñ Abdou Mbow yaa xam mbay dañoo rëy làmmiñ ñoo daroon nekk ci télé yi nag di wax di wax di wax ba pour moom pour Macky day loolu day yàq diram Macky moo bind benn note mu ne bu ci kenn wax man damaa tiit jour boobu damaa tiit ma ne sii Macky de bu demee boo wax ne bu kenn wax xëy na am na fu mu jàpp fekk na boobu Adji Sarr duul na ko ne ko damaa biir man dama yaakaaroon sax dafa am vidéo fekk na ñoom boobu nañ ko gars yi fen nañ ko ne dañoo am lii dañoo am laa dañoo am lii mu gëm ko mais Macky la dans sa haine bi mu enal ko moom moo waroon jël affaire bi mu teg ko ci suuf tegu ko ci suuf mu def forcing di def forcing def forcing ne day jàpp Sonko da ngay wuy par force mais yéen gaa yi da ngeen gaaw a fàtte kan moo convoqué Macky Sall en tant que mu nekk député mu ne da koy convoqué par force Mamour Diallo la c' est pas Mamour Diallo c' est Macky Sall oh, Sonko bañ booy génn xeex fa ñu xaañ fa benn policier ba mu waaj a xam Sonko ne il faut que ngeen dindi sama immunité makki Sall kan moo dindi immunité bi en de semaine përëx përëx affaire bi. bërëx bërëxal ko sëñ Mountakha wax ñëpp wax mu bañ Macky Sall la Macky Sall la ba affaire bi jeexee soo ko du ma wuyu kan moo yónni police ne day wuyu par force sëñ Mountakha ne ko garaawal après sëriñ Sonko sëriñam Abdou Mbacké ne ko garaawal dama wuyu est-ce que c'était Mamour Diallo c'est makki Sall c'est Antoine Diome c'est c'est le juge Sall ñoom ñoo ko convoqué Sonko ne day jaar fii Sonko ne fii laay jaar préfet bi ne doo fi jaar ana préfet boobu tey nommé ko gouverneur pour récompenser ko Mamour Diallo dañ ko nommé dara préfet bi lañ jël nommé ko mu ne fële kon tey buñ demee ba ci biir mu commencé am ay xeex nit ñi ne bu leen dem nit ñi ne kenn du ko yóbbu Mamour Diallo Sonko bu bu kii Macky Sall bu bëggoon jàpp day bàyyi yëfu set

fayantu baaxul fayantu baaxul parce que ñom bu len leeroon ne complot bii ñu nek ci complot bi la xé bu len leeroon ne fii lay mujj 14 mois ñi ñu dagg ci sen loxo est-ce que dinañ ko def duñ ko def fayantu baaxul ni da ngay gëm yalla mais la responsabilité ultime hein mais wa mom la la bëgg expliquer yow yaay ba seen neex nga waxal man man jéemuma innocenté kenn jéemuma innocenté kenn mais dama ne même bu fekkee ne daf ko def da ngeen di comprendre ne nit la Mamour Diallo nit la du yonent bu dee dafa jàpp ne carrière politique am dañ ko Sonko moo ko yàq moom munul muñ loolu wala boog collaborateur am Gabi munul muñ loolu nit ne ko eh Adji Sarr parce que gars yi ñoo lay dugal Sidi Ahmed Sidi Ahmed Adji saa dafa dem ci Sidi Ahmed ne ko maa ak Sonko maa ak Sonko maa ak Sonko léegi Sidi Ahmed ne il faut ñu comploter ko kan mooy ennemi Mamour Diallo kan mooy am intérêt pour fayu ci Sonko ñu ne eh xëy na Mamour Diallo xëy na noonu la demee ñu dugal ko ci xëy na Mamour Diallo ñu ne eh xaar ñu dugal ci Gabi wala ñu dugal ci Mamour Diallo ñoom tam ñu ne eh xaaral ñu jéem ko ridiculiser mais ci biir yàkkamti amuñu sax ay preuve ñu nous ne dañuy insister mais Macky Sall c'est lui l'ultime responsable mu neex leen mu naqari leen la preuve kan mooy fay kan moo koy fay fu mu nekk nii kan moo perte ci histoire bi kan moo perte ci histoire bi Macky Sall moo perte parce que sax bu duloon Sonko Sonko koy yëre Macky ñàkkoon na nguuram ba pare l'ul l'ultime responsable c'est Macky Sall et il est en train de payer les pots cassés ndax ñàkk na doole nguuram yëngatu na Sonko wax na ko gën na jox doole Sonko Sonko mu ngi koy tëkku nee na ko élection yi boo ko sàccee di nga xam Barthélemy Diaz nee na euh, euh, dimanche mi ngi mairie wala mi ngi prison waaw. waaw ngeen baal nee na cest dire man man dafa am ay booy yoo xam ne xamuñu xamuñu. amuñu expérience sen jàngu sorwul voyager wu len amu len crédit yu bëri do len sax deglu yenen yenn amu len sax temps deglu ay ñom tunkara ak yoyu parce que yéen préféré deglu ay zal zal YB ngeen di setan, wala ngeen di seetaan fallu fee seen vidéo wala ngeen di seetaan euh, boy jaw ketchup yeen ñoo ngeen gëna a amu len xam-xam jàngu len sen jàngu soriwul amu len crédit pour boroom xam-xam yu mel ne ay Tunkara wala Mister Shake bu ñu leen di xelal ngeen nekk fii di di ñu saaga lu ne ngeen koy wax fii laa leen waxoon ne Barthélemy Dias du gagné Dakar bu xeexu waxuma yow pourtant yëpp ngeen bind non bàyyi li ngay wax waa yow doo patriote bàyyi li ngay wax Barthélemy du gagné bàyyi li ngay wax yi kenn bul wax ne dañoo sàcc élection yi parce que loolu boo koy wax day tax ñu sàcc élection yi waaw léegi Barthélémy wax na leen ko démb ngeen dem Barthélémy nee na il a des sources sûres Barthélémy nee na j'ai des sources très sûres Macky Sall dafa bëgg sàcc élection yi ah Bart xam maa ngi leen ko doon wax temps yëpp est-ce que c'est pas trop tard est-ce que c'est pas trop tard doo bàyyi mu des trois jours ngay doog attaqué Macky Sall di wax naan fichier beeg lii ak lii ak laa man ba ma yàggee alerté du tey man dama ne Macky Sall Ziguinchor rek la la ñemewul sàcc fi mu nekk nii ak Bignona ba ma gisee lu ma gis Kafountine ak Bignona gëm naa ne ñaar yooyu xanaa nag xanaa nag lu mu dof dof di ko laaj mais nag mieux vaut tard li def dem ak Barthélemy ak xalifi ak xalifa ak euh, Déthié Fall kontaan na ci trop que boo xool ñoom lii moo doon seen plan te man wax naa ko dama Sonko dañu xam xamul ci fichier bi waxna ko fi lan motax Nous ñu bo ba xana dañu xam luma effectivement duñu ay nous am stratégie xam la mo stratégie on se fout du fichier Khalifa waxna ko on se fout du fichier Macky Sall lu mu tout fichier bi bu nit sécuriser vote bi 6 h du matin

comme sa Cheikh Pastef la bokk ñu ne noonoo non carte bi nekkatu fi waa ji di lim ay tur yu bëri barkeel solaay ay jaam lañ ay dëmb ay dëmb ay jaam boo demee carte yooyu lakk nañ ko wala wala kubbati nañ ko ay doom gars ngeen baal man bugguma saaga temps yëpp maa ngi doon alerte maa ngi doon alerté sàcc lañu boo demee c'est trop tard c'est vrai que li Sonko wax dina tax Macky Sall tiit tuuti

man maa ngi doog comprendre li tax ñu def li ñu def xam li tax ñu def li ñu def dañu xam ne bu ñu teeloon indi violence di wax ne dañuy jox carte yi par force fichier bi par force loolu day yàq seen campagne te Macky mën na ci profité dàq élection yi wala mu am ay problème ñoom Sonko ñoo ko tey ñu def li ñuy def mais vraiment deux derniers jours yi moom Sonko doole bi mu wane. man mi sax daf maa jaax barke rasul rek Kafountine Bignona ba pare tey mu delluwaat tey mu delluwaat bu Doudou Ka sax dégg naa suba nee day def <laughs> dégg naa Doudou day def benn conférence de presse suba gars yi baal Euh, je m'excuse Mané, Sonko man man suis un Sonko mais j'avoue j'avoue que Sonko man des fois daf may man ne pas Kafountine ak Bignona daf suis Yem. man suis suis ci yalla Sonko nan la pas a mobiliser ay nit ba mu je ci un bi bàyyiwuñ ko mu wacc mu demaat na, guddi guddi boy melni ay dem ga ngeen balma Sonko pare djel avion ñew Dakar ñew Dakar def discours bu doy war menacer Antoine jom ne ko yow da nga rep <laughs> Antoine jom da nga rep boy commencé ré yuux waay sàcc nga suñu élection bu le pass yakane da ngay satchat ba pare mu ne Macky Sall jeexal nga la c'est inéluctable mooy changement bi kenn mënatu ci dellu ginnaaw ba pare nga yaakaar ne jeex na kii ne na eh, Doudou ak benn sàmbu xuloo nañu ah xuloo nañu ah bon ah bon kii la gën a jege laay lay la ah dinaa ko seetaan gaal gi TV merci Khady Koli dinaa ko seetaan

Sonko dafa war a arrêté campagne bi dama ko gis muy wàcc ci avion bi te démb mi ngi woon Dakar tey ma gis ko muy wàcc avion bi damaa tiit lan lay def ci avion bi di dem Dakar di dem di ñëw dama bind yàlla na ko yàlla aar parce que instant yi sama sama njot moo ñaaw ne kii ak Aliou Sall nu mu génnee tëkk ko nii mu wone doole bii nii na def attention Sonko na def attention nag léegi Sonko na def attention. na arrêté campagne bi Air Sénégal bi dafa doy doy na seuk na def attention j'ai peur pour lui parce que doole bi mu woné titel na Macky Sall man mi sax daf ma titel ah dina ko xool ah dina ko xool Khady Coly man sax le succès de Sonko daf ma titel man non non cet homme là il est extraordinaire

lima gis Bignona ba pare nga gis ko mu ngi partout gisatul jabar gisatul doom lekkatul nelawatul te saa tu ko il est frais chemise blanche amul de tache mais la ko Macky Sall Je kii na la xoolal Sonko dafa nax Macky Sall Macky Sall dafa yaakaaroon ne campagne bi xam nga nan lay même man loolu laa foogoon man dama yaakaaroon ne campagne violence lay doon boo xam ne dañuy ñëw boo leen sàccee suñu élection comme man li ma doon def loolu laa yaakaaroon ne ñoom Sonko loolu lañ parce que man xam naa ne ay sàcc lañ xam naa ne ay sàcc lañ. man dama ne woon Sonko du may Macky Sall maatam sax du ko ko may Macky Sall di Sonko si un stratège dafa la nax Macky Sall maatam bu fa élection amul élection du am fenn mel ne ku sonnal ku bëgg récupérer maatam te yàlla xam na ne xoola moom maatam intéressé wu mais loolu la gëmal loolu la gëmloo Fatoumata Fouta Tampi gëmloo ko Jibril Ngom ñuy xataraay du rey seen bopp Farba Ngom di xatraay du rey seen bopp nekk du Sonko boobu loolu Matam intéressé wu parce que xam na ne combat bi ndànk-ndànk la Macky Sall sàcc la mais danaan day fexe rek ba Macky du sàcc lépp dina ko intéressé Ziguinchor Bignona Casamance Dakar surtout mais li ci des Kédougou sax dès le début Kédougou ñaari fan xeex xam naa ñoom Sonko ñoo ko woone ko saay garaaw nañu sacrifier Kédougou après yow ñu def la député def la ci liste bi nga fexe ba nekk député garaaw te bu ñu jëlee 2024 am na nu ñu demee ñu jàppale ñoom ñëpp la léegi ñoom dañu def benn stratégie c'est-à-dire stratégie mooy li Mister Shake bëggoon jàmbaar loo comme Baba Fall man loolu laa gëmoon Matam ñu leen may dara su préfet Ndiou Ndiadjéry dañuy defanteeg ñoom ba mu saf-saf man loolu laa tàngal dëkk bi ba woon Macky Sall ne ko xolal duñ ñu may benn commune man loolu laa doon wax mais ñoom soo ko dem ba ci biir xam ne loolu ko defee élection yi mën na yàqu Sonko dafa muus Sonko dafa bëggoon wane dooleem ba pare dafa bëggoon jàngaale defaale campagne non Sonko c'est un stratège parce que instant am présidentiel def Sénégal bi yëpp wërloo ko ana Macky bu lii jeexee léegi ngeen gis Macky commencé waat tournée économique yi Sonko mi ngi wër Sénégal yëpp yëpp yëpp yëpp Macky Sall mënul dem fen mënul dem fen Sonko lii la bëggoon du dem di ñëw di dem di ñëw partout gisoo attaque yi sax da ko arrêté woon temps yi programme moom la doon wax bu li la il est intelligent ba ñep ne eh ki da léegi tapet la ñu mak sal dañ dem mané ah ki tapet la parce que xassatul waxatul Kédougou mu ne grawul Matam mu ne eh de toute façon Matam titre foncier mak sal la xam nga gay na ah ki dal xam naa leen rek la bëgg so tapet la lolo tax ali Sall génn di xas Sonko jambar lok yo parce que dañu yakane Sonko dafa ragal nekati Sonko dafa doon jàngaale campagne électorale fi mu nekk nii li mu liggéey nii mën na ko téye ba deux mille vingt quatre mais nag li mu wane démb barki démb ak tey xaw ma nag campagne bi kañ lay jeex man nag ci laa jébbul nag ci Ousmane Sonko damaa dem ba tiit sax léegi moom waaw Nemmeeku Touré wax merci Ousmane Touré Touré Nemmeeku bi Nemmeeku Touré bi ñu ko doon xaar moom la def non du nit ba mu demee nag ba lépp nice ci la commencé nekk génnewaat mortal combat bi nag démb démb dafa tàngal ne Antoine Diome da rep ba pare mu ne lan la Sonko wax gars yi man damay jël ay not lan la Sonko wax mu ne Antoine Diome da ngaa rep man damay jël ay not xam nga man li tax des fois may mer di xas sama yenn gars yi je m'excuse parce que des fois tamit damay mer commencé leen xas. parce que man damay def sama devoir damay def sama recherche man Sonko buy wax damay jël note yeneen gars yi bu ñuy wax duma ma jël note mais Sonko buy wax parce que moom lépp lu mu wax téere la xaar leen rek ma wax leen lu wax defe naa ci téléphone bi laa ko def oh na oh malheureusement waaw fii la kay gis nga démb guerrier discours guerrier lan la njëkk wax waa jël leen xeex bi waajal leen xeex ak Macky Sall mooy bu sacce élection yi waa jël leen xeex ak Macky Sall ñun ñoo leen mën fuuf parce que xale yi ñun la àndal dégg nga après mu ne ku leen dóor fayu leen après mu ne pare leen pour sécuriser victoire bi ndam bi waxati Macky dafa foqati woon victoire bi li paas waaye di ko bàyyi mu foqati bii après ci leen euh, euh, euh, Antoine Diome dafa rep parce que Antoine Diome dafa bëggoon tas yeewu askan bi ndax xaalis bi ñu am mu ne li Khalifa Sall wax je me fiche du fichier Sonko nee na un peuple déterminé moo ëpp doole fichier après ci la wax yerandu yerandu daate xam nga la mooy yerandu daate non mais du nit mais man dama xamul kañ la jógee gi bi naa ba demaat fa de <laughs> non Sonko du nit il vient de quitter Bignona il vient de quitter avec non du net. du nit Sonko du net. yerandu daate xam nga la yerandu pas cotise ba njàcc ba mooy temps booy def ou ku cotisé do, do, la yerandu man des fois recherche nee na du sàcc élection yi du ko sàcc comme ni mu ko sàccee woon 2019 ci la continuer nag mu xasaat Khalifa Sall Aliou Sall tontuwul sax Aliou Aliou Sall parce que moom xam na ne moom Aliou Sall du du moom ak Aliou Sall moom la ak Macky Sall mu ne fonctionnaire boo leen gis comme Aliou Sall wala wala l'autre là di distribuer ak xaalis xam leen ne sàcc ci la Barthélemy nag daal di jëngu moom tamit nee na 22 heures. dina nek euh, maire comme maire de maire de Dakar wala ñu j'espère que je Bart wax dina parce que man ko done avertir dina je dinañ Dakar xam man suis Mister Cheikh. man gis je ko gis man xamna ni Macky Sall day Ahmed Aïdara même chose avertir mais comme gars yi genn stratégie stratégie bi surprise pour Macky Sall on va le mettre sur le fait accompli nous sécuriser nous gars Il va nous a procès-verbaux compter ku dëkkul ci koñ bi nous voté Sonko nee nous Dakar toog leen ñi pour pour pour voter la la defal bagage voilà léegi gars yi léegi li ci des rek mooy mooy li mu leen wax rek ñaan yàlla ñaan yàlla fekkee dimanche jàmm ak salaam parce que du yomb Doudou Ka day def day def ci <laughs> conférence de presse xaw ma dinaa ko seetaan euh, ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla aar parce que fi mu nekk Macky Sall waaroon na nag Macky Sall waaroon na man damaa tiit sax man man bi man succès Sonko bi daf ma commencé tiita billahi wallahi taala daf ma commencé tiital waaw moo nekk en tête des sondages <laughs> kii nee na Pape Diop mu ne ma ne Khady Collin man sama xel dal na man li ma bëggoon am na xam ma lan laa bëggoon ñoom Barthélemy ñu génn ñu avertir Macky Sall comme def nañ ko sama xel dal na man kay li ma doon bañ mooy ñu ñàkk fayda ñu sàcc élection yi man bu boobaa damay bàyyi laay bi nañu dëggal seen bopp comme Bamba Fall voilà laay bi loolu la coupe d'Afrique bi dañ ko doon jël pour jëm ñu toroxal mais yalla toroxal Sénégal ba Sénégal fu mu nekk ni am na nu muy demee sax Cap Vert dóor ko waaw tey euh, euh Algérie nañ wax au revoir <laughs> nar yu bon ak ma leen koy yéné algérien yu réew yu fuy gagné ñu di ñu xass di jaay guerrier do len gat Sénégal du sen morom algérien Sénégal du sen morom yéen a jël coupe d' mais terewul ñun ñoo nekk numéro un en Afrique te xoolal même suñu équipe bu baaxul sax Pape Alioune Ndiaye nekk fa Crépin nekk fa mais terewul ñun ñoo jël premier suñu groupe yàlla bu ñu yàlla yàlla ñu toog nag mais comme Algérie Algérie wadd na rek man kontaan naa baax na ci ñoom am naa waa ji laay seetaan waa ji di toj tele yi noonu la tudd xëy na xaw ma xam naa tey dina toj dina toj ñaari dix télé lay toj mooy Algérien Algérien bi commenté match yi comme ça mi ngi voilà voilà Boumédia oh Boumédia bande de vauriens Ah <laughs> comment maa la koy yëndee Ivoirien très bien Ivoirien rek la bañ waaye instant yi moom tout sauf Sénégal ñun Macky Sall bëgguñu mu am victoire Coupe d'Afrique bi yàlla na Sénégal toog waaw Tons Ndiaye nouveau abonné Mr Chef. merci jaajëf Gaye..! yi waa gars yi naa ko yemale fii tey live bi neex na tey live bi neex na euh, naa ko yemale fii euh, di ñaan yàlla rek Sonko na def attention na juge Casamance jàmm ak salaam ñëw Dakar toog nag dem këram nag noppalu ko nag na dem këram noppalu ko parce que man vraiment maa ngi commencé tiit voilà mais yàlla baax na dofuñu nag de dofu ñu de gis nga bu ñu dof dof la ba dara dal ko ak Aliou Sall moo tax gis nga menace baaxul sànq loolu laa doon xalaat. mane ne Aliou Sall moo génn di menacer Sonko tey maara di taal lu dal Sonko dañ naan Aliou Sall la voilà gars yi gars yi live bi loolu la woon nañ def noonu ba beneen yoon suba nag gëmuma ne dinaa def live tay dama ne woon du ma def live parce que gis nga taw bi moo arrêté mais suba je ne pense suba moom day sedd moom Macky Sall dina sàcc élection yi non dina sàcc gars mais au moins gars yi avertir nañ ko gars yi averti nañ ko du sàcc jigéen dina dina dina bàyyi te am na nu muy demee Dakar comme gars yi averti nañ ko Dakar mën na am surprise parce que gars yi dañu am plan seen plan mooy dañu sécuriser vote bi foofu yàlla baax na mais dëkk bi neex na Sonko nekk dafa neexal Sénégal ndax au moins am nañu espoir waaw bu njëkk ba lépp daal doonu su xalaat gañe mais fi mu nekk nii Macky dañ ko obligé mu def ay élection fi mu de l' espoir voilà gars yi ñu def doon ba suba merci Ibou suis ñuul ma ñëpp ah ba suba incha Je ngi excusé wu sànq nag sama li ma suis gars je mais nag bàyyi leen suis ma attaqué Je suis Je di je suis man man Je suis ma kenn Je suis pour Sonko Je pour Mamour Diallo je pour Macky Sall man suis fiche man Sénégal lay xéxal waaw man man faalewu ma kenn man Sénégal lay xéxal motax problème man dëgg rek dëgg man man man Sénégal laay xeexal ak yàlla jaajëf.